Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. dina xaw yaatu tuuti euh, parce que tey gis nañ ne ay union européenne dañuy joxe ay aide am di sàmm maa nuyu bu baax a baax euh, ay milliards nag milliards yu bari lañuy joxe yu takku dërëm yu takku euh, ñu dégg tamit ne Macky day yàgg di dem di lebi ji xaalis. pour créer ay emploi déggoon nañ fi tamit ci élection présidentielle yi Macky Sall ñëw fi leb fi mu ànd ak le club des investisseurs c'était c'est-à-dire c'était pour créer des emplois aussi lu tolloog 7000 milliards kon tey bu ñu gisee kuy leb ay ay milliards pour créer emploi bu ñu gisee koo xam te ne Union européenne da koy da koy jox ay milliards pour mu créer emploi ay Aïcha Kébé maa li bu baax a baax ñu gis ne kooku ci milliards yooyu yëpp ndaysaan ay fas rek la ciy jënd ak euh, ay mbaam mbaam sëf yaa problème les gars y a problème moo tax ma leen di wax ngeen partage vidéo bi y a problème boo seen mam wàcc sangu sol yére bii nii moomu leen ñu y a problème y problème partage leen vidéo bi y problème parce que sàcc bi gën a rëy tey dafa feeñal boppam dana tout le monde entier tey soxlawu sax président Ousmane ko nekk yow sàcc nga tey il a il s'est étalé au fait euh, xaw ma ndax nu ma ko mën a waxee mooy mooy dafa weer boppam daal ay tubaab jox lay milliards ne la créer emploi yow nga ñëw créer jënd ci ay mbaam sëf dafa leen ay caisson dafa woon ñëpp ne sàcc la léegi on a même plus besoin d'appeler l'Union européenne pour lui dire que le gars il est voleur moo woon monde entier bi yëpp ne sàcc la tey dama merci beaucoup yenn saa ma toog sànq ba si yàgg ma toog di toog toog toog ma ne man dañoo ne président Ousmane Sonko wàlliwu la mais man kay mu man kay doo ko gëm ne wàlliwu la ndaxte le gars on lui donne des milliards pour créer des emplois mu jënd ay mbaam sëf renseignement monde entier bi yëpp renseignement généraux yëpp mooy bi ñuy toog naan Macky sàcc la Macky sàcc la Macky sàcc la le gars avec des milliards il se il achète des ânes et des vaches et des euh, des des et des chevaux mais man nee la fii mooy tombe des animaux man lii mos ma ko gis si àdduna lii Macron soxla wu sa ñi koy wone ko Macky sàcc la yow ñu lebal lay milliards ne la créer des emplois nga jënd ay. ay euh, nga jënd ay fas ak ay aan ah non non non non non non yow xale bu gën a di ay Sénégal sax bu ñu ko joxee ay milliards ne ko créer des emplois il va pas acheter euh, avec des milliards Macky Sall Macky lañ la jox de ay milliards yéen amu dara loon ci créer ak start-up yu mu yu bëri ci monde bi yëpp yëpp yëpp yëpp amu leen dara loon ci créer lu dul jënd ay. jënd jënd fas ak alors là le président Ousmane Sonko n'a plus besoin de faire de dire quoi que ça soit le gars a montré au monde entier la preuve comme quoi il est voleur le gars il est voleur tu vas au niveau de l'OM euh, euh, euh, de la Banque mondiale yow Banque de l'Afrique on te donne des milliards man dama ne nii dama jommi dama jommi si yoon bi yëpp yëpp ma ne non non non non c'est pas possible lii ça doit être des blagues avec des milliards qu'il perçoit il s'achète des des ânes création de ânes et de vache comme emploi yow Macky Sall soxlaatul ko tu di rien du tout soxlaatul ñuy woo Macron nekk sàcc nga soxlaatul ñuy woo États-Unis nekk sàcc nga yow yaa weer sa bopp fekk yow yaa weer sa bopp. mooy man jaaykatu carotte bu nekk fii ku ma joxoon milliard ay ay fas laa ciy jënd ay ànd man je vais ah non non mais je c'est pas possible du tout je rêve man damay rêver non damay rêver je rêve on a attrapé notre voleur en flagrant délit les en flagrant délit ma nee di génnee ñaata milliards lañ joxe ci Covid bi ñu génnee ñaata milliards la Macky Sall la dem sàcc. lañ ko lebal ci bànk mondiale ngeen calculer li ko lebal yëpp yëpp yëpp ngeen jël ko def ko copie collé ak mbaam yi ak fas yi te nee ñoom rek vingt emploi la ñu créé gum daal yow on te donne des milliards Macky boo demee Rwanda fële li ñu lebal banque mondiale bii nii boo ko fa yóbboo duñ ci jënd ay maam ak ay ay ay mbaam sëf man tey laa waaru man dama waaru fi métoon que ñenn ñi ci internet bi ñu ne maam dof na mais effectivement suñu dëkk ñëpp a dof on vous prête des milliards ñun suñu dëkk ñëpp a dof ah tout le monde est fou ah on est fou amuñu dara luñ ciy créer lu dul jënd maam sëf ak fas ñun on est fou là ça c'est pas possible non non non non on est devenu fou chez ah non c'est pas possible mosuma gis ku ñuy lebal ay milliards mu ciy créer emploi maam sëf c'est la première fois dans l'histoire du monde léegi nag fii rek la ñuy débat wax yéen nag yéen nag waa yéen yéen soxlaatu sax président Ousmane Sonko di étaler programme il en a plus besoin Sénégal xool leen man maa leen wax prochain député yi man maay fal léegi parce que nous on est mort quoi on est vraiment mort on est mort amee mënuñu ko débat on peut pas débattre là-dessus parce que yéen mbaam sa fi ngeen xool mais ñaata la Macky Sall percevoir ci financement ces dernières années est-ce ne Babacar Seye Boubacar Seye bi ñu jàppoon temps yële parce que dafa dem ba Union européenne mu signalé ne ay milliards la ñuy joxe pour créer emploi pour xale yi jël ndox mi est-ce que xam ngeen ne temps yële xale yi doon jël ndox mi ak yooyu yëpp mag yi dafa dem fenn foofu naan waa xale yi dañuy jël ndox mi ndax am am ñu liggéey affaire yooyu et on te donne des milliards nga dem jënd ay baab sëf non non du ma wax sax affaire de alpulaar parce que moo ko waxee tooñ alpulaar mais Macky Sall je comprends pourquoi dans ngay joxe ay xale yu pata ay doom yu pata ay non mais c'est c'est dans les gènes quoi c'est dans les gènes sama doom bi am 6 ans sax sama doom bi am 12 ans sax boo ko joxoon ay milliards yu ci jënd mbaam sëf a ay fas yow amatul dara lu ñuy def yow war a xoolal Macky Sall dara lu ñu lay wax yow yow yaa weer sa bopp yow yaa exposé sa bopp dans le monde entier yaa exposé sa bopp on n'a même plus besoin de dire au monde entier de leur prouver que soit tu es soit tu es le plus grand voleur de la terre da nga taxaw woon ñëpp ne man sàcc laa dañ maa jox ay milliards ma jël lépp def ko sama poche jënd ci ñi varambaam sëf mais en deux mille vingt et un en deux mille vingt et un un négro on lui prête des milliards il achète des vaches et des chevaux un négro lii tubaab bu ko defoon dañ koy internet dégg ngeen sama gars yi lii tubaab bu ko defoon dañ koy internet dañ koy yóbbu dañ koy yóbbu maison psychiatrique tubaab bu ko defoon dañ koy yóbbu maison psychiatrique dañ naan kii warut ñun rek ñoo accepté génn topp ci ginnaaw benn président de la république qu'on donne des milliards et prend l'argent et l'achète di euh, mu mu dem jënd ci vingt vingt fas euh, ak euh, vingt mbaam sëf vingt mbaam sëf sax ay chevaux vingt mbaam sëf ñu nag am nag man xamam so président Ousmane Sonko nee naa la soxlawu sax muy dem union européenne ne leen ni kii sàcc la day dem photo ba am sëf yi rek xool ñaata financement lañ ñu jox rek def ci benn prime ba sëf bu nekk ñaata lay jar rek def ko ci profilam rek renseignement généraux tubaab bi yëpp xam ne nag nag lii la moom soit le gars il est malade on l'interne soit c'est un kleptomane boo xamante ne kii luñ ko jox da koy def ci poche am y a un problème les gars a un problème on a un problème un sérieux problème au Sénégal y a un problème le président on le finance des milliards il achète des ânes pour créer des des emplois non Macky c'est le comble ak fierté bi ñuy wax nag ndeysaan les jeune de APR ils étaient tout fiers de dire que am nañu liggéey léegi des emplois précaires yoo xamante ne dinaa leen décrypter nag naka la emploi bi précaire yéen aan boobu noonu boo leen koy dawal boo leen daanoo seen tànk bi dam comme da ngeen con yéen waa APR comme vous êtes con comme des bobites seen tànk boobu damay am ngeen am ngeen assurance. mbaam dëgër bopp euh, mbaam mbaam sëf dëgër bopp dëgër bopp boo xam te ne boo demee fii nii fa fa mbaam yi di nekk ak fas yi dañ la wax mbaam moo nekk loo xam te ne le plus facile difficile à dresser mooy vous êtes tellement abruti yéen mbaam yi dañ leen koy jox rek ngeen yéeg ci mbaam demeewul noonu de mbaam moo gën a dëgër bopp kaa la ñu dëgër bopp kenn mënu ko dresser ko tout petit lañ koy commencé de dresser te moo gën a dëgër bopp bu ñu la ku dëgër bopp dañ la naan dafa dëgër bopp comme un âne yéen jox nañ leen ko rek yéeg ngeen ci waa APR tellement que vous êtes abruti au léegi yéen dem nañu fenn fële ne l'Union européenne pour dire que oui au Sénégal y a pas d'emploi les jeunes ils prennent la mer nanana nanana d'accord l'Union européenne des euh, euh vous vous accorde des crédits en un endettement vous êtes bêtes comme vos bites on vous prête des milliards léegi nag milliards yooyu noonu yéen laajoo leen ci dara dara dara dara dara dara lu dul ay mbaam sëf yoo xamante ne laajte woo leen sax assurance Les emplois qu'ils ont créés là, est-ce que vous cotisez, vous allez pouvoir cotiser les charges sociales yéen ñu ne leen temps Covid oto mbalit yi nga xamante ne moos ñu koy téye au cas vous pas fii dañoo am gande ngeen fii nii ñiy dawal oto mbalit yi dañu am prime de salubrité boo xam ne dañ leen koy jox ñu euh, euh, euh, bu leen gis ñi di fii rek di mbale ñi ñi ñii di bale mbedd bi ci mbedd bi. comme dañu xam ne ne mun nañu jot microbe bu nekk champignon bu nekk à tout mun nañu feebar moo tax ñoo gën a ëpp salaire éboueur yi que ñu nekk ci bureau yi boo leen gisee tubaab yi bëgg ñu nekk éboueur xam nga lu tax parce que tubaab dafa tenir lii nii bakkanam lii nii nii lu éboueur di fay fay fay fay préfère nañ def beneen petit boulot que dem ñu leen defal éboueur ñoo di fa liggéey examen éboueur fii ñaata lay fayeeku au minimum au minimum dina am 2000 euros. mooy amul kenn ku ñuy roñloo mbalit fii France di la fay SMIC amut booy liggéey trente cinq heures par semaine di nga am au minimum deux mille euros parce que dañuy xalaat ne sa bakkan bi mun na ci rot ñu doxal ay prime yoo xamante ne ñuy am ay RTT yoo xamante ne pour rattraper sax microbe yi ñuy for amiante beeg lu nekk li nga xam ne dañ koy ramasser mun leen a jox cancer moo tax ñoom dañ leen jox salaire bu gën a rëy léegi yéen waa APR ñu jox leen mbaam sëf ne leen roñ leen mbalit amu leen prime de de salubrité wóoru sax nag leen cotiser retraite tellement ko vous êtes bett caisse de retraite bi nga gis ne ñoom dañ koy détourner à tout moment mooy rien n'est sûr rien n'est incertain yéen ñu ne leen am leen mbaam sëf rek ngeen yéeg ca mbaam sëf ba ne am ngeen emploi mbaam sëf ko bu leen daanalee seen loxo dem seen tànk dem seen bëñ wadd ngeen daanu ñàkk ci bëñ ngeen daanu dee ci seen njaboot loru mooy emploi précaire la ñu mënta xeex Sénégal monde entier bi yëpp les gens se battent contre les emplois précaires fii kuy def emploi précaire dañ lay fay fay boo xamante ne yow la munti dal dañ lay jël en charge APR ñu ñëw jox leen emploi précaire ngeen di ko jiiroo di ko jiiroo di ko jiiroo di ko jiiroo comme ay dof pourtant fii laa toog ay mois je vous ai dit le marché d'intérêt national là va ouvrir bientôt rien que les cent y a 187 bureaux, je l'ai vu sur Internet. C'est des milliers d'emplois qui qui euh, ñooy génn yéen doo leen dem xooli ji actualité li Macky Sall war a def comme ça yéen ngeen wut ci liggéey bu subaa ngeen am liggéey non marché d'intérêt national bi dina soxla ay boucher dina soxla ay euh, dina soxla ay poissonnier dina soxla ay primeur dina soxla ay manutentionnaire dina soxla ñiy dawal ay camion parce que camion yi yóbbu lekk yi euh, un peu partout euh, Afrique dañ koy soxla yéen loolu yëpp mu ngi fii yéen xooloo leen ca marché d'intérêt national bi bu ñu leen tegalee mbaam sëf ko Macky Sall déedéet bëgguñu mbaam sëf yi ñun dañuy xaar marché d'intérêt national bi comme ça ñoom fa liggéey marché d'intérêt national bi équivaut à Rungis fii France dem leen xool ñaata milliards ñooy génn Rungis yéen ñu leen di naxe mbaay yéen ñu bokk APR ñu lebal Macky Sall ay milliards amul dara lu mu leen ci yéene ci milliards yi lu du mu jox leen mbaam sëf garaawul sax parce que bii dafa feeñal boppam monde entier bi yëpp xam nañ ne léegi sàcc la Union européenne sax ça bu ñu leen bindee tey lettre yónnee leen vidéo mbaam sëf bi traduire leen ko Union européenne ci boppam nañ ne Macky Sall na leen parce que avec les milliards qu'on leur comment naka la mën a créer ay emploi mbaam sëf C'est un sérieux problème. Est-ce que c'est des questions qu'on se pose au fait tey ñun activistes yi tu sais qu'est-ce qu'on doit faire nañu xool ñaata financement la Macky Sall jot pour créer emploi weer bii ñu def ko copie coller ak mbaam sëf yi ak prix mbaam sëf bu nekk ñaata lay jar ñun yëpp ñu envoyé ko Union européenne parce qu'on n'est pas des débiles mentaux tey liggéey ñàkkul Sénégal xaalis bi ñu lay jox yëpp Macky Sall boo ko jëloon tey jii pour ñu defar ay tali xale yëpp nañu am liggéey. ñu formé leen dañ am liggéey xaalis bañ lay jox Macky Sall lu ndaw rek laa wax loo xam te ne Sénégal soxla na ko et même balaa may yegg fu sori boo leen demee fële na le boo leen bon coin ngeen dem xool ñaata la oto mbalit di jaar 9000 euros ci benn milliard vous savez combien de 9000 euros là-dedans mooy benn milliard mun ngeen ci jënd lu mat ay 100 voitures oto mbalit. yoo xam ne au lieu ñu leen di jox lii nii dañ leen jox oto mbalit te oto mbalit boo leen ko mënee dawal boo leen ñëwee France di ngeen am liggéey oto mbalit boo leen ko mënee dawal dëkk boo leen dem di ngeen am liggéey yéen bu dee mbaam sëf yéen far ngeen am liggéey yoo fa yéen waa APR far ngeen di am liggéey xam nga nous on a tendance à émigrer looloo tax tubaab yi bëgguñu ñu te duñu yóbbaale métier duñu yóbbaale compétence chinois yi bu ñuy ñëw fii. dañuy indaale métier yeneen dëkku européens yi bu ñuy ñëw France dañuy indaale métier daf nañ ko boo demee Portugal portugais yu bari bu ñu ñëwee fii lan lañu fiy def ñu ngi ci batiment bi indaale nañu métier ñun ñoo jógee bled indaale ñu métier léegi bu ñu leen defaral da ngeen xool métier d'avenir boo xam te ne boo leen jógee bled ñëw fii France da ngeen trouver liggéey tout de suite Macky Sall Sénégal soxla nañu électricien boo fayloon xale yi formation électricité sax bu paree dinañ demee dewu dem wuti ji liggéey Macky Sall Sénégal soxla nañ plombier boo fayloon xale yi plombier parce que les immeubles poussent comme des champignons comme ni ko tubaab bi waxee xale yi nañ am liggéey loolu sa xel yeggu fa de boobaa sax union européenne du la mayere parce que fayal nga xale yi formation boo xam te ne fu ñu dem dañ am liggéey Macky Sall boo fayaloon xale yi ñu béy bu subaa xale yi dinañu jox leen tracteur ñu dem ci àll bi béy ah, konoon tubaab bi du la mere parce que na ne yow yaa ngi créer emploi ñu ñëw nag nee nañu ministre du travail moom moo validé projet boobu noonu moom moo validé projet boobu noonu te nee na fas yéene cee def yeneen mais ministre de l'emploi fan nga jàngee ak ban monde nga nekk waroo xam internet de waroo xam internet de waroo xam li monde bi di laaj de man je me rappelle sama tante bi muy jógee bu muy jógee Gambie. ñëw Sénégal bu daan dem ndugg ji marché temps boobu dañ daan jël sareet bu dem dugg ji marché moom si boppam dafa préféré woon na dox sax ki jël sareet dugg ci marché dugg dugg jël sareet parce que ma ne naka la mën a sañsee ba jekk dugg ci sareet ñu toll en 2021 te li ma leen di wax maa ngi doon am ay 15 ans 16 ans ñu toll en 2021 ñu jël ay jigéen ñu sañse ba jekk ne leen léegi amul dara leen liggéey bi ñu leen créé mooy ngeen di dawal ay fas maam sa et tout étaient tout contents ndeysaan ne créer nañu emploi ak ki nga xalaat sax ki am idée bi ki bokk APR am idée boobu noonu l'idée la l'idée la plus tordue de la terre ki bokk APR am idée boobu rek rek rek rek man kooku rek lañu war a jël rek teg ko place publique rek ngàddu ko ba yaram di sedd kooku rek xaw ma ban at la war am xanaa warta am suñu âge rek xanaa kooku quatre-vingt-dix ans la war a am parce que je pas comprendre xale yëpp connecté internet xam li xaw ci monde bi nga gis ne France xamal lañu doy mbaam sëf loisir mooy nga toog ko nga yëg ci kaw mbaam sëf bi di def tour tour ville bi loolu la ñuy wax loolu la ñuy doyee mbaam sëf yéen oto am na oto am na de soq sax kenn soqootul ndax am na machine yuy soq ba ma ma ne nuyu bu baax a baax nan la machine à laver sax am na pour vous dire que comment le monde est évolué ba tubaab bi di waaj def oto yoo xamante ne du am chauffeur yéen ngeen dellu ci mbaam sëf noo y' problème yaa a vraiment problème ni ko tubaab bi ni ko ñag yi di waxee y' problème mais vraiment y' a problème chez nous on a un sérieux problème problème boo xamante ne amul équation bu koy résoudre en fait. La solution, je ne sais pas dans quel monde ça se trouve, mais ça ne se trouve pas dans ce monde-là. Macky ngir yàlla yónnante bi nañu calculer sa solde tout compte ba 2024 ñu defal la ko sur table cotiser la nga able Macky Sall yor nga caisse noire alal bu baree fa nekk xalaatoo ci lenn lenn lu dul mbaam sëf yabu leen ah Macky Sall leen de non non Macky boppam la saaga en fait il a pas insulté cette fois-ci les Sénégalais il s'est insulté lui-même mooy day toog ak ñoom Macron ku ci nekk ne ko ban genre emploi la créé ci ci dëkkam moom mu teg mu ne ay mbaam sëf la créé cette fois-ci Macky Sall ne nous a pas insulté il s'est insulté lui-même On est en Le gars, il s'insulte. Là, vous allez me dire que oui, France n'a dégagé. Mais quelle France est dégagée Tant qu'on a des, des, des, présidents comme ça en qui nous amènent des ânes, et vous voulez que la France parte Mais la France ne partira jamais. Parce que nous, nous dirigeons, nous, route. Il y a une France wax leen rek Macky Sall ak Macron bu ñu toogee ci benn table ban conseil la Macky Sall mën a jox quel genre de conseil quel genre de discussion Macky Sall peut poser sur la table quand il s'assoit avec les occidentaux je ne vois pas parce qu'en 2021 un président qui se permet d'acheter des ânes yéen yéen ki ñu représenté yéen est-ce que vous voyez le gars qui nous représente yéen ma kon na toog j'ai créé des ah les jeunes je les ai formés pour euh, dans le la nouvelle technologie yooyu dañuy wax ah la nouvelle technologie oui t'as vu la nouvelle machine que j'ai achetée Macky Sall toog ne ko oui j'ai acheté vingt vingt vingt j'ai créé vingt emplois jël affaire nag osé ko jël ko ci internet bi non le ridicule ne tue pas chez nous le ridicule ne tue vraiment pas Macky Sall yaa mag téeméeri yoon Macron mais vraiment téeméeri yoon xam nañ naan mag da ku la mag ëpp lay sagar yow da nga mag téeméeri yoon Macron boo doon béy mun ko taawlu mais yow Macron moo la ëpp téeméeri yoon ay sagar parce que xelam sax dajut mu jël ay mbaam sëf di ko jël di ko créer emploi en 2021 la honte quand je dis la honte c'est vraiment la honte la honte du négro la honte du négro lii moo nekk loo xamante ne gàcce boo xamante ne man man bu ma amoon baay boo xamante ni ay mbaam sëf lay créé en 2021 dama ko ne pépère papa bul génnati papa bul waxati papa tu es trop en retard mais Macky Sall tu vraiment soit tu un attardé mental yéen damay yow laaj est-ce que Macky këram am na connexion en fait est-ce que am na internet këram j'aimerais bien savoir ah Macky xanaa gisoo lii xew ci YouTube Google bi boo demee ci boobu xanaa amunoo Google mais ku yàgg di Google doo doo doo jënd ay mbaam saf di ko jox sa waa dëkk ne ko am di dawal problème les gars y problème y problème y un grand grand grand problème le gars il est malade. Le gars, il est malade. APR, ils sont malades. Ah, et man, je comprends pourquoi les gens me prennent comme une folle. Parce que quand ça dit président, mais imaginez-vous, nous sommes la première personnalité du pays, président de la République, en 2021. Man, je suis mais je comprendre, effectivement. ki nga xam te ne moo ñu jiite nekk président de la république ay milliards lañ koy jox pour mu créer emploi mu jënd ay mbaam sëf li moo tax Sénégal ñëpp dof nañu xam lu ñu dese def yar mu neen rek yenn suñu loxo yi di nii wayaay wooy lii rek a ñu dese c'est tout ce qui nous reste c'est tout ce qui nous reste damay gis xale yi di yuuxu ci internet bi mais je vous comprends parce que connecté wu ci internet bi te ki la jiite ndeysaan moom ambition ci mbaam sëf la yem mais y a de quoi péter mais xale yi nekk Sénégal maa leen yërëm j'ai pitié de vous tu m'étonnes que Macky investirul dara ci université bi bourse xale yi sa bugg ko fay parce que ambition ci mbaam sëf la yem ambition mbaam sëf ndeysaan damay gis nit ko am ambition nit ki man ba nga defee arena bi sax je me suis dit peut-être. Euh, on peut avoir de l'espoir mais ba mu wàccee ca arena ba def tailleur bi ñu ne d'accord tailleur bi xay na amagul essence bi mu ci def amagul carburant bi mu ci def xëy na raaya pareegul ñun ci yooyu rek mais tout en tout en ayant l'espoir de se dire que non un jour tailleur dina dox ñu wàcc ca tailleur ba dem ca mbaam sëf dem ca mbaam sëf c'est ça oh là là la honte la honte mais dama ruus dama ruus te ñu nga moo leen demee ca TER tubaab moo ko doon dawal tu m'étonnes que yow bu ñu la balee TER tubaab moo koy dawal parce que ñoom xam nañ fayal xale bu nekk ca dëkk ba defal ko formation pour mu dawal te ñeneen bañ la TER ba yàqu te yow doo pare fay moo tubaab ba mu la joxee TER moom moo koy dawal tubaab ba bu la joxee avion moom moo koy dawal ndax bañ avion ba am crash loolu yëpp wóoluwuñ la ci parce que ñoom bu ñu toogee seen table yi balaa ñu lay lebal xam nañ doo am loo ko fay te bu ñu ko joxee ne la débrouille-toi de ramener un chauffeur tu risques de prendre un chauffeur qui n'a pas le permis un conducteur qui n'a pas le permis moo tax tubaab bi dalay lay jox téyeer ba pare jox la ku koy dawal jox la technicien bu koy far entretien parce que ñoom toog nañu xool nañ sa maayin bi xool nañu xale armé nañ ko bu xam ne ne yow sa maayin bi yow mënoo demal sa bopp en xool nañu di nga tubaab man moo tax tubaab euh, euh, bëgg ba bamba maa leen nuyu baax baax moo tax tubaab ma fan koo fet tubaab du jël xaalisam di ko claqué nii de gars yi yéen jël mbaam sëf bi xam leen milliards yi ñu ñoo koy fay dégg ngeen ils sont fous te xam maa ngi jëm j'aimerais bien savoir ban facture nga fa parce que ñoom ñoo fi dàq surfacturation foofu ngay gisee mbaam sëf boo xamante ne jar na 10 million wala 20 million ça ne m'étonne pas jëndee benn mbaal ndam ba am sa 300000 ñëw ne leen ne mot na 10 millions wala 30 millions comme ni nga ko defee woon ca tracteur mais blanc bi le blanc il dit rien du tout bu fekkee ne vous êtes on est nous on accepte de se faire avoir comme ça ñoom ils vont rien dire parce qu'ils savent que la dette on va le payer tôt ou tard on va le payer buñ ko fayul am nañu zircon am na ñu or am nañu pétrole dañuy ñëw tëbb ba mu neex te ñun duñu yuuxu parce que ñun ñoo accepté ñuy jël xaalis ñu ñuy jox ay milliards ñu ciy jënd ay mbaam sëf le plan il va rien dire ah saay bu Macky Sall lambar lambaree foofu ne danañ ko lebal dañ koy lebal saay bu Macky Sall lambar lambaree foofu ne xale yaa ngi jël ndox mi dañ koy jox ils vont tout lui donner ils vont tout lui donner même s'ils veulent quatorze mille milliards ils vont lui donner ils s'en foutent bu Macky Sall indee benn facture mbaam mbaam sëf buy jar un milliard. ñoom ils en ont rien à foutre parce que ñoom bor la te ñun tôt dañ koy fay ñoom xam nañ ne ñun lépp lu ñu leen amal dañ koy fay par la force parce que c'est écrit ñoom ñun ñooy dem à l'analphabète mais ñoom ils y vont seen xaalis fu ñu ko def dañ koy nangu boo ko fayulee boo amulee loo koy fay dañuy yokk ajo yi di ko yokk intérêt yi di ko yokk di ko yokk di ko yokk boo amulee loo koy fay nag ñu dem xool ji fa pétrole bi gën a walle ñu ne la comme mënoo koo fay lii ñun dañ ñuy signal contrat que ne lii nga ñu koy fayee mooy mu neex ñu mu naqari ñu dañ koy fay qu'on fasse le con qu'on fasse l'intelligent on va le payer moo tax boo gisee xale yi nekk ci internet bi di leen yërëm après am na neneen noonu lañ koy fayee yi nga milliards yooyu noonu TVA ceeb ba ngeen di togg da ngeen di jékki-jékki ngeen dégg ne ceeb ba yokk na courant ba yokku na diwlin ba yokk na lii ak lii yokk na ngeen foog lan ngeen koy fay lan la lan moo tax yokk pour fay seen bor yi tant qu'on fait le surmouillé ne dañuy topp dañuy muñ muñ bee ngeen muñ mooy dañ lay kàtta muy métti muy métti nga naan damay muñ damay muñ ba def crise cardiaque moo tax dëkk bi yëpp def ABC tey nag yàlla dafa def eeru internet la man loolu moo nekk sama liggéey semaine bi mooy dem xooli ji Babacar Balde maa lay nuyu bu baax a baax abu Aboubacar Ndiaye ñu dugg yëpp maa nuyu sama liggéey semaine bi xam mooy lan dem xooli ji ñaata ñu lebal Macky Sall ba mu jëlee gouvernement bi 2000 avant mu jël 2019 parce que 2019 la ñëwoon fii décembre 2019 la ñëwoon banque mondiale pour ñu lebal ko su ma juumlee xaw ma décembre 2018 la xaw ma dem xooli ji ñaata lañ ko lebal boobu ba léegi ma dem xooli ji prime baam sa fii. parce que il est le seul en mille en deux mille vingt et un ñu di ko financé amul dara lu mu ciy xalaat du jënd paam sëf ñu def ko nag copie collé ak vidéo ministre bi ñu partagé ko nag tubaab bi di ko gis comme sa xam nga kex-kexi bi nekkatu Sénégal ñoo lay kex-kexi de yow mën naa ci bii pare reetaan yàlla bu mu yegg cam dëkku ñag ya nga xam te ne ñoom yàkkamte nañu ñu ñoo nekk seen gàgg au fait ba pare xam lu gën a neex xam ngeen kantulu xam nga Kanteloup génne woon nañ fi Macky Sall bi mu laalee loxo loxo Macron bi nii nii bu mu juumee jaawale ko loxo Marème Faye Sall Kanteloup boobu noonu émission Kanteloup boobu noonu yàlla dafa mbaam sa fi yegg ba tubaab yi jàppal la ko di la ko décortiquer benn par benn ba génnee la Union européenne li ñuy jox yëpp yëpp ndeysaan en 2021 ñun ay mbaam sam la ñuy jënd mais Macky Sall man nee naa la président Ousmane Sonko soxlaatul muy def campagne ci dara. ay naan Macky Sall sàcc la il a détourné l'argent du pétrole xoolal foofu dañ ko dépassé parce que yow yaa dem étaler sa bopp yow yaa dee ci marché yow yaa weer sa bopp fet tey soxlaatul ñuy wax mukk ne fenkat nga wala sàcc nga affaire yooyu non on n'a pas besoin Macky Sall yow emploi yi nga fiy créer rek la ñuy def copier-coller li ñu la lebal moo tax yenn saay nee naa ku ne président Ousmane Sonko wàlliw la maa ngi doog gëm ne wàlliw parce que mosuma gis sàcc bu tàggee boppam mais bi yoon Macky dafa tàggee boppam ak aadi yi dafa tàggee boppam publiquement on en rigole dëgg la parce que mënuñu ko jooy mais lii nee naa la euh, euh, Boubacar Seye il a mis en prison il y a mois ndax lan parce que dafa dem signaler au niveau de union européenne xaalis bi Macky Sall di détourné yow tey da nga may Boubacar Seye mille raison mais vraiment mille raisons xam nga dama ko may mille raisons parce que dossier bi ngeen ko defaloon ne dafay fen dossier boobu bu ko génnee mu génnee li Union européenne di joxe ay milliards teg ko mbaam sa fii mais yow Macky Sall daanu nga raaboor Macky Sall amul fenn fooy dem ba setal sa bopp fet xaw ma nag ban conférence ngeen di def ban réunion ngeen di def ak naka ngeen di def ba changer affaire bi xanaa ngeen jékki-jékki ne affaire bi de non non c'était faux affaire bi film lañ doon tourné xanaa loolu ngeen ko mën defam ah. ngeen jékki-jékki ne mbaam sa fii ay film lañ doon tourné mais c'est pas la réalité parce que lii bu nekkee réalité Macky Sall yow de am nga compte booy rendre fële Union européenne ak Banque mondiale ñoom ñu lay jox ay milliards pour nga finance pour nga créer ay emplois milliards yooyu mënoo ci ci sax jënd. oto mbalit Macky Sall la honte la honte mais vraiment la honte la honte du siècle li tubaab bi naan la grosse boulette la grosse boulette lii moo nekk la grosse la plus grosse boulette que APR puisse faire au monde bu ñuy ne boulette lii mooy ngandu maamu boulette yow Gaston Gaston nga waroon tudd dégg nga Macky Sall Gaston Lagaffe nga waroon tudd Gaston Lagaffe rek nga moo waroon tudd parce que tu fais trop de gaffe trop trop trop trop de gaffe ngeen partager vidéo bi ba mu yegg suñu wujju yooyu noonu équipe Mboro Sow te équipe Mboro Sow nee nañu premier premier campagne électorale ak deuxième ñoo boole seeni xel ne dañoo fas yéene defar Sénégal ci ay mbaam sëf mooy da ngeen jël ñaari sàcc yu gën a rëy su teer dénk leen dëkk bi ndeysaan sàcc sax day muus dama foogoon ne sàcc day muus mais yéen sàcc yi sàcc yëpp su teer yéen a nekk sàcc yu gën a con su teer yéen mënoon na ngeen jox sax ay milliards ngeen dem jënd ay oto mbalit occasion sax ñoo jox ko xale yi occasion laa wax de ngeen ñoo jox ko xale yi du sax feeñ laa fat mais jox leen ay milliards amoo leen dara lañ ci jënd lu dul mbaam sëf te Idi ak Macky ñoo réfléchir da ñoom ñoom ñoo réfléchir da ñoom ñëpp nee dañuy waxtaan ñoom ñëpp ñoo ñoom ñoom nee nañu ñaar pour ki jël première deuxième ñi nga xam te ne ñoom lañu ñoom ñoo nekk ci kaw soi-disant c'est les plus intelligents je pense c'est les plus c'est c'est les plus forts les plus costauds ñoom ñoo jël affaire bi yéeg ci kaw ñu ne ñoom ñoo nar a doxal yéen ñi nar a doxal ci ay maam sëf ngeen nar a doxale équipe mu rox sow ñu ngi leen di xaar ñu ngi leen di xaar c'est que yéen mënoo leen comprendre président Ousmane ko dafa ñëw indaale programme au fet le temps vous a rattrapé l'internet vous a rattrapé tey amatul fenn foo leen di dem ba seetal seen bopp lu dul ngeen jël gouvernement bi rek delloo ko nit yi jox leen ñu ko ñun ñun ñun ñuy gérer ka municipal yaa ngi ñëw bañ ngeen kaa def mais par la force bu ñu rut xolal xale yi maire yi nekk ci ko ñu yëpp laa wax maire yu bokk APR yëpp maire yu bokk ci ñenn ñeek ñenn benn maire rek lañ fi xama kenn rek lañ fi xam koo xam te ne mu ngi liggéey nekk ci terrain bi mu nekk Barthélémy Dias ña ca des yëpp raye leen raye raye raye raye muy adjoint kaketoo pax kaketoo paat kaketoo paat yëpp rayé xale boo leen dem di voté ji maire da ngeen xool balaa ñu leen yi indil ay mbaam sëf ku bokk ci équipe mburu sow dàq leen ka bokk ci yeneen kii dàq leen damay xool ñam programme te ñi programme ñun Pastef dañ ci bokk dégg ngeen parce que ñun xam nañ ni ñuy gérer xaalis. ñun on est à l'ère du vingt unième siècle ñun kenn duñu jox ay milliards ñu di ci jënd mbaam sëf xale yi sëy nuyoo woon na ca ngoro ba dañ kaa fayut li ñu am bariwut mais ba vacances yi jotee gis ngeen la ñu def vacances agricole yi xale yi ngi béy ña doon béy kontaan am na ñu ñu récolté tey boo leen xoolulee li amal seen avantage avantage seen bopp ngeen xool seen doom yi jàng yi nga xam te ne am nañu xam-xam ngeen jox leen dëkk bii waxuma leen vingt cinquième pays le plus pauvre ah. di ngeen dem ba dootu leen rawati kenn su terre yéen a jël ndaare à ce rythme là yéen a jël boo leen demee Rwanda Kagame joxul xale ya ay fas ne leen dem leen Kagame mu ngi désinfecté bus yi. gel hydroalcoolique partout balaa nga yéeg ci bis yi am na gel hydroalcoolique Kagame bis yu rafet la jox dëkk ba Kagame dëkk ba set na Kagame booy ñëw di dugg ca dëkk ba dañuy compter nombre de plastique ya nekk ca saak ba mooy raw na Kagame raw na Macron ci écolo Kagame raw na Kagame fu Macron toog Kagame toog fa Kagame a droit à la parole parce que dafa créé lu Macron créé wul ñoom ba ñuy def trois poubelles boobu ñun France fii benn poubelle lañ am ci mbedd bi ñoom commencé nañ ci trois poubelles sélectives ca mbedd ba kooku tey amul fenn fu ko Macron di jaar parce que fu mu toog wax moom am na moom à dire mais yow borom mbaam sa fi yow amul kenn kuy wax ba nga ubbi sa gémmiñ parce que yow yaa jël ndaare ndaare à la queue je me demande ban niveau ngeen am yeen waa APR ban niveau je me demande ban niveau ngeen am. ak foo leen jàngee ak ban monde ngeen wàccee au fait j'essaie de réfléchir mais je ne trouve pas les ma mosuma gis ñi nga xam te ni dañoo nulaar comme waa APR yow Macky Sall ku la tëkkaleeg tukkuleer yi sax day euh, alpulaar yi sax day saaga alpulaar yu fet yow ku la séeréer yi saaga séeréer yi yow si boppam la ñu mënta assimiler benn xeet boo fet que j'ai jamais vu d'habitude dañu ne sénégalais yi dañu am ambition sénégalais yi dañu intelligent sénégalais mais jamais vu un sénégalais qui réfléchit qui a un esprit aussi tordu que yow lii mooy esprit bu gën a tordu sur terre au fait ngeen bal ma nag de avec tout le respect que je dois à tous les sénégalais tey il est temps que gain bi ñu bule ko avant qu'il fasse autre dégât autre dégâts parce que dégâts yaa ngi bëgg a bëri faux médecin am na fi APR la bokk Bougazelli xam nañ ko foo billet APR la bokk yéen faux fausse violé APR la bokk yéen lépp lu foo ci yéen la jógeew fekk ba ngeen pare ci foo yi ñu ne xëy na peut-être di ngeen commencé liggéey parce que dégg naa di doon waxtaan ñenn ñi leen fekk si yëpp ci opposition bi ay ñoom Omar Sarr ñoom ñëpp ñu ngi fa ñoom ñëpp ñu ngi ci Morox ma leen fàttaliku ne Omar Sarr moo yore ministre des Mines mooy conneries yi def yëpp bu lebee ba pare après bu ko waree fay ressources yi Omar Sarr mooy signé dégg ñoom ñëpp ñu ngi ci Morox Sow ba sarax leen man ngir yàlla ak yonent bi balaa maam di am tension. ndax tension AVC dafa gaaw ñu calculer solde tout compte Macky ñu def ko à l'amiable comme nee nañ bulee dafa xaw metti ñu def ko à l'amiable Macky Sall abe able ñu jéem a organiser ay élections le plus rapidement possible ñu def fi président boo xamante ne tey intelligent na un président compétent pour que mu dawal devoir attendre jusqu'en 2024 qu'un abruti termine son mandat c'est trop demandé te xam naa du man kese am na ñu bëri balaa ñu ñuy yegg 2024 dinañ def AVC parce que saa bu Macky Sall créer benn affaire rey na dix mille dix mille personnes amul leen dara lu baax même médicament yay ñëw fañ la nee faux médecin attendez-vous à avoir des faux vaccins parce que vaccin bi nit ñaa ngi dee attendez-vous à avoir des faux comprimés c'est la chaîne en fait la chaîne la tomate bi ngeen di lekk c'est des faux fausses tomates ceeb bi ngeen di lekk foo ceeb yéen lépp a faux seen kër dëkk bi en fait le gars il vous ramène que ba ngeen di lekk foofu noonu j'en suis sûr que ba ngeen di lekk foo sucre bu gën a bon ci àdduna yéen lépp lu foo Macky Sall da leen koo indi tegal leen ko comme si. ñoo xam te ne dañ leen génnee fànn lay diriger di leen wax jaar leen fii jaar leen fële les gens nag ñenn ñi bu ñu bëggee ñu topp ci ginnaaw Macky Sall la di ko ne monsieur le président mosier le président man maay bañ ba wut ku ma lànkale wu fet man dama topp ci ginnaaw manquant boo xam te ne en 2021 amul dara lu muy lu muy créer lu dul jënd ay mbaam sëf jox ko nit yi ci ay milliards en plus kii même ma suis man maay maay bañ topp ci ginnaaw Macky Sall bay wut ko ma lankale may ñëw di wax kilifa diine yi kilifa aada yi bàyyi leen xale yi ñu xeex seen ak seen yelleef bàyyi leen xale yi ngeen wax ak ci njekk ak teraanga ngeen ne ko comme dañu toll fi ñu toll nii en 2021 ñu ne la Covid mu ngi fi ak microbe yi fi nekk yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp nga xam te ne règle d'hygiène yi dañ ko augmenté amoo dara loo ñuy indi lu dul ba am sa fu mu ramassé ay malade malit wax leen ak Macky Sall la parce que li ñu deele rek bëri na te nit nañu gën a continuer di dee parce que boo jëlee koo xam te ne dafa ñu laa ne ko jiiteel il va faire que des conneries des conneries et tey avant qu'on aille loin 2024 c'est trop loin ngeen imposer ko mu organiser mu organiser élection municipale ñu génnee maire yi fi nekk teg fi ay maire yu compétent maire yi liggéeyul ñu génnee leen teg fi maire yu compétent maire yi liggéey ñu joxaat leen plus de moyens pour que ñu mën a développer bu baax seen quartier ngeen bàyyi ngeen wax moom parce que koñ bu nekk na chef religieux yi xam ne ne dafa am ay budget yu ñu ko jagleel te tey budget boobu noonu bu fekkee dañ koy def si seen poche di ci voyage ci dund dund bu neex wacc askan bi ñu nekk ci ndóol tey baax na cheikh religieux yi waxam ak Sall dëgg comme mënut na ba pendant qu'il est temps parce que ñun bëgg nañu avancer comme suñu moroom yi rêvé nañu suñu dëkk set comme suñu dëkku moroom yi parce que àdduna bu ñu nekk ni ñun ñëpp ay nawle lañu te ñëpp am internet lu tilim Sénégal France xam na ko li set Sénégal France xam na ko tey boo leen demee ba nga xamante ne Sénégal lu fa xew yëpp yëpp yëpp mu ngi yendu ci euh, ci ci àdd asa àdduna si dañu war a sangu ba mu set balaa nit yi ñu ne sangu leen na tey ña nekk ci dëkk yeneen dëkk yëpp tey ku ci nekk lu mu am def ci dëkkam lu mu am dawal parce que xam na ne dëkkam ku tollu fële ku tollu kàngane mi mun na xam la xew Sénégal yéen bu Google xewee ba léegi nga xam te ni Google boo ko génnewee France ñu ne la France rafet na ñu génnee États-Unis ñu la États-Unis rafet na ñu génnee Rwanda ñu ne la Rwanda rafet na bu ñu nee nègre munut a avancé xanaa ba ñu doon ne nègre mënut a avancé ba Rwanda ñëw bay avancé mu war ñoo booster ñun ba ñu ne ñun mun nañu avancé fait tey man mënuma gëm ne ne l'Afrique ne peut pas avancer parce que dañu am benn dëkk Amsata bàcc maa ngi nuyu bu baax mu nekk Rwanda Rwanda di avancé te ay noir yu mel ni ñun ñoo fa dëkk ñoo xamante ne ñun lu ëppale leen woon dara dañ jóge woon ci guerre ñoo fa dëkk te ñoom dañu ceer moon doon comme ñun ñoo fa dëkk te utiliser nañ seen xel ba développer seen dëkk kon ñun war nañu mën a utiliser suñu xel ba développer suñu dëkk ba nga xam te ne kenn dootuñu kenn benn xale dootul jógoyti fële ne day ñëw fii parce que soxlawuñ ko mais loolu pour mu am il faut que chef religieux yi comme ñoom dañu am kàddu ci dëkk bi te ñëpp dañ leen di déglu il faut que ñu bàyyi xale yi ñu tànn ki nga xam ni kii moo leen doy parce que xale yi ñooy jàng école ñoom ñoo xam ki baax ak ki bon ñoo xam médecin bi mun faj ak bu munul faj tey am nañu ay xale yoo xam te ne ay chimiste lañu tey am nañu xale yoo xam te ne dañu xarañ ci mathématique calcul lépp loo nga xam te ne technologie internet bi tey xale yooyu noonu il faut que ngeen may leen ñu dimbale leen pour ñu mën a tànn ki nga xam te ne tey bu subaa mooy mën a dawal ba dëkk bi avancé am na xof foo xamte te ne bu ñu fa tolloo il faudra que chef religieux yi wedduma ngeen yedd président weddiwuma ngeen joxe seen opinion mais quand il s'agit de choisir au moins au moins bàyyi leen xale yu ñu tànnal seen bopp loolu mooy tax bu subaa mag bu juddu Sénégal mun a am retraite loolu mooy tax bu subaa parce que bu boo leen bàyyee xale ñu tànn bu bu subaa nañ tànn ki nga xam te ni kii moo mun faj ils vont choisir le meilleur parmi eux parce que ñoom ñooy côtoyer le monde extérieur ñoom ñoo am visu sur le monde extérieur tey boo leen bàyyi xale ñu am épanouissement boobu noonu ñu am le droit de choisir et que le peuple le président soit élu par le peuple et pour le peuple bu boobaa waxuma ne xale yi rek tey kontaanam mais yéen di ngeen kontaan ndaxte boobaa seen droit yi nga xamante ne état bi mu koy sàcc yéen di ngeen dund ba nga xamante ne da ngeen ne lii yéex nañ koo def maa ne ma leen dëkk bu mel ni Touba nga xam te ne F nit yi dañ fay dem pèlerinage tey ci effage bi war nañu génne benn montant ci péage bi boo xamante ne loolu moo waroon transformer Touba ba nga xamante ne suuf sax du fa am dëkk bi yëpp day pavé dëkk bi yëpp day am canalisation foo romb kër goo romb di nga am ndox dem ba jox nit yi sax famille ay allocation yoo xamante ne dina leen permettre ñu dund aisément ba ndool jeex Touba. mais loolu pour mu am il faut ngeen teg fi ñi nga xamante ne mën nañu auditer mën nañu calculer mën nañu du def pour l'intérêt du peuple moo tax booy gisee suñu président Ousmane Sonko jóg ne man dama bëgg ñuy liggéey loo xam xamante ne ñun suñu askan dinañ ci gis seen bopp mooy loo xamante ne ñun dinañ ci dundoo tey xooleen ressources yi am Touba yépp waxuma yeneen région yi de mais ressources yi am Touba yépp yépp yépp Touba yépp kenn pavé wu ko Touba yépp amul que évacuation tey am na ñoo xamante ne bu ñu xëyee Touba bu ñu feebaree duñu am lu ñu faju te ñooñu ñëpp tey jii ci Eiffage boobu rek mënoon nañ ci am allocation boo xamante ne kenn du ci c'est inadmissible que benn ville boo xamante ne dafay indi ay touristes dafa nekk benn ville religieuse et que la famine se réveille là-bas dem leen Lourdes fin fond de la France mais ñëppay liggéey ñëppay dund misère new fa ndax lan ndox ba ngay jënd def nañ ci taxe buy dem ci dëkk ba chapelet bañ fay jaay def nañ ci taxe église ba ña kay bale loolu yëpp dañ ko jël yokk ko ci taxe yi di créer emploi mais loolu boo leen bëggee mu am il faut que ngeen bàyyi ay jeunes yi nga xamante ne tey am nañu compétence ci domaine boobu noonu ñu mën a jël dëkk bi en charge ba yeen ñu mën leen a jox seen àq ak seen yelleef parce que mallette yii ñu leen di jox ñoom ñu ngi leen di sàcce en même temps parce que mallette yi ñuy yóbbu Touba mallette bi ñuy yóbbu Popenguine mallette bi ñuy yóbbu ci église bi soxna mi maa leen bu baax a baax mallette boobu noonu mun naa wax ne yenn saa yi sax Eiffage ci benn weer la koy liggéey tey boo leen newoon gàddu leen seen mallette ñu dañu bëgg comme Eiffage suñuy taalibee ñoo ciy dugg di ñëw di tuubaa di dem di ñëw. bépp taalibe bu jaar foofu oto bu fa jaar ngeen leen ñun waa Touba ñun ñoo leen jox ñun ñoo leen bi pour pourcentage pour mun a defar suñu dëkk bi nga xam te ne ñun ñoo ko moom parce que bu Eiffage existé c'est grâce à bu Eiffage amee xaalis grâce à nous mais condition yooyu noonu boo leen ci bëggee accéder il faut que ngeen bàyyi seen doom yi nga xam ne dañu def droit ñi nga xam ne dañoo jàng nekk comptable def finance ñu diriger dëkk bi. teg ko ci yoon comme ça ñoom la ñuy gis si yeneen dëkk yi nañ ko imposer fii bay yéen ngeen profité ci parce que même yéen sax dañ leen di nax ñëpp lañuy nax ñi ñoo raw peste gouvernement yi ñoo raw peste si dëkk mais loolu yëpp pour mu am yenn saa yi vous entendez les gens vous en vouloir être fâché euh, dañ daan non dañuy xeex diine kenn xeexul diine parce que ñun ñëpp dañu am diine ah ñun ñëpp dañu am diine mais ku sañoon dëkk ba mu dëkk. diine boobu noonu da ciy xappi ñun tey bu ñu sañoon suñu dëkk bu ñu nee fii site religieux la Popenguine dina mel ni Lourdes bu ñu sañoon ngi day mel ni Lourdes mais à ce rythme là Popenguine du xaaja mel ni Lourdes boo leen demee Popenguine pënd baa ñiy rey mais comme dañu gëmloo ne ñun dañu war a dund ci pënd bi pënd boobu rek rek rek ak suuf si xale yu bari am nañu asthme tey ndax pënd beeg suuf si te chaque année ñu def même rituel bi. léegi nag même rituel boobu noonu dañ ko war a améliorer ba ba pëb ngeen bu meloon nii ñu ne année prochaine de war nañu def en sorte que mu gën a dàq nii mu am progrès mu am progrès ba nga xamante ne day toll foo xamante ne dañ naan ah pëb ngeen de léegi mu ngi mel ni Lourdes wala mu ngi mel ni Rome te boobaa tout à notre honneur ndax tubaab bi dinañ ñëw pëb ngeen taxaw di photo di selfie mais tey ñaata tubaab ngay gis ñu dem ba pëb ngeen di fa selfie duñ fa selfie ndax amul luñ fa selfie ndax dëkk ba dafa boo leen bëggee ñun ñu bu ñu ñëwee suñu dëkk mën a selfie ci yenn suñu site religieux dañuy gën a mm-hmm. améliorer et pour ñu améliorer il faut que ñu génnee gouvernement yi nga xam te ne dañuy sàcc di yàq ñu teg fi koo xam te ne dafa am compétence ñu ñëwaat encore ci compétence parce que président Ousmane Sonko li mu jàng fële na la ci impôt et domaine ku gis kanamam bi ku gis doxalin xam ne ku dàq jàpp sàcc la dàq jàppar mm-hmm. de sàcc man moom laay wax sama jàppar de sàcc dëkk nag boo bëree sàcckat quand tu as beaucoup de voleurs da ngay dem votel le jàppar de sàcc ki nga xam te ne moo mën a jàpp sàcc yi nga ne ko kaay toog moo tax man duma ko ci tekkale ak kenn non non sama carte bii ma teg fii nii fii ak yàlla mu may may suuf bii am naa fulla bu day niki saay bu ñu nee élection ma dem dóoral ko fa l'espoir fait vivre du ma xëy di dem voté ji pour ay sàcc du ma déplacé wu pour ay sàcc saay bu ñu nee élection ma ne ko cabax ba jour bi ma yàlla di mayee chance ñu ne président bi léegi du sàcckat président Ousmane Sonko la tudd donc may woo sénégalais yëpp sans que j'étais contente parce que en cours de route sama benn ami d'enfance boo bokkaloon classe moo ma woo pourtant karimiste bu rëy la woon de mu ne ma dooreen avant président Ousmane ko laa àndal mu ne ma ku xool kanam geex leer bi mu àndal sax nga xam ne kii am na leeru président tey ni mu def waxuma noonu j'aurais bien aimé que tous les sénégalais fu sénégalais nekk mu yeewu ba nga xamante ne bu yoree kàttam mu ne par la force kii dafa war a dugg ci palais bi bu la gisee sàcc yi yëpp cumulé cumulé def seen fen def ko seen fen njambaas ko njambaas ko ba mu mët jël viol ne dañ koy teg ci kawam parce qu'il est bon parce que bu ñëwe da leen di jàpp. bañ a dem kaso moo tax ñu inventé l'histoire de Adji bañ fay jógee moo tax ñu inventé l'histoire de Adji Sarr léegi nag ñun ñoo jël l'histoire de Adji Sarr multiplier ko par zéro sànni ko ca mbalit ma ne leen que vous le voulez xale bi dafay dem par la force ci pale bi mu neex leen mu naqari leen parce que ñun duñu wàcc ay débiles mentaux yu mel ni yéen dañu conditionné dans notre future vie suñu future fii bi ñuy dem na leen le demain dañuy xool koo xam te ne ñor na ba pare mooy lépp a mët na day réfléchir comme nit comme une personne de deux mille vingt et un ñu teg ko fi yéen da ngeen réfléchir comme une personne de deux mille vingt et un Macky Sall rek laa gis ñu gis ku mel ni Farba Ngom ñu xool ko xool ko melokaayam ak ni mu gën a moo deex man apaya yéen man apaya laa mun ci moom dara APR, il y a tellement... De... Pourtant, il a des intellectuels. Mais je ne comprends pas les gens de APR. yéen yéen a mën a ko ci assemblée nationale nga di muy seen a gis ku mel ni Djibril Waaj nga xam te ne moom va bi nii nii fu mu toog ne maanaam ngeen yóbbu ko xool ku gën a Sénégal ngeen yóbbu ko assemblée nationale moo leen di défendre man je ne comprends rien dans APR yéen yéen a mën a gis pas boo xam te ne dañ koy kuus. Moustapha Niass boo leen ñëwee xanaa gisoo leen dëkku tubaab yi amul kenn ko am âge Moustapha Niass ñu teg ko assemblée nationale ne ko yaa koy diriger on est en 2021 boo xam ne dañ koy couche mu am yéen moo leen di jiite assemblée nationale moo seen président moo leen wax assis debout tu président Ousmane Sonko bu duggee foofu mais dof yëpp génn tous les fous et les folles sortent que dof lu muy dof dof dof. xam na lan mooy talaata xam na lan mooy nokk moo tax saa bu président Ousmane Sonko duggee ci assemblée ba yéen ñëpp ngeen génn parce que vous n'êtes pas à l'aise parce que boo ubbee seen gémmiñ ay conneries rek rek rek rek ngeen di wax muy benn. deuxièmement sarax leen ma ngir yàlla député bu ñu koy tànn c'est pour l'intérêt du peuple c'est pas l'intérêt du président man mii sax dinaa ñëw sax présenter wu député parce que y a trop de choses à changer trop d de à changer. et sax ngeen seen assemblée nationale bi c'est la corruption même président Ousmane Sonko moo fa fañ pour corruption parce que bañ ñeen joxee ay prime bu ñu yokkee seen salaire moom rek mooy yuuxu ne lii ak lii c'est pas normal ñeneen ñi ñëpp dañuy lekk te ne muut parce qu'ils sont là-bas pour leur gueule ils sont pas là pour le peuple corruption boobu boo leen gisee assemblée nationale Macky Sall di leen yokkal ay salaire c'est pour que ñu nekk nekk ay député ñoom moom moom moom moom. da leen di corrompre c'est une corruption quand il une corruption au niveau de l'Assemblée nationale il y aura jamais de loi équitable qui vont voter là-bas ils voteront que pour l'intérêt du président vous vous rendez compte corruption ba ci biir Assemblée nationale yéen gisoo leen Assemblée nationale moo tax euh, tubaab bi boo ñëwee seen dëkk du ñu jël lépp dénk ko benn parti politique non dañuy jël une partie boo leen gis Assemblée nationale en général parti au pouvoir est minoritaire ñoom dañuy def en sort que opposition bi nekk majorité pour ñu mën a contrer président bi tey dama waxaat encore beneen astuce municipal yi di ñëw soo leen bëggee am avancement seen koñ bu kenn votel waa APR da ngeen di votel opposition bi bu fekkente ne opposition bi ngeen votel budget bi bu ñëwee. le pouvoir sera obligé de regarder à la à la louche parce qu'il se dit il se dira que bu ma bëggee récupérer fii il faut ma yi ñii bu ko defee dañuy surveillante kenn du bëgg a ñàkk postam mais ñun dañu nax ñun ñun ñun ñun ñu nekk noir yoo xam te dañu nax parce que dañu naan comme diw jege na président bu ñu ko votelee bu ñëwee fii dina gën a indi xaalis c'est pas comme ça tubaab bi ñoom ils sont plus malins que nous ñoom ki nga xam te dafa nekk au pouvoir duñ ko jox tous les pouvoirs non non dañuy réduire ay pouvoir am moo tax bu ñu nee maire dañuy jël maire jox ko keneen xam nga ñu nee séparation des pouvoirs législative dañ ko jox mu parti au pouvoir ñun ñoo jël législa ñun ñoo jël euh, pouvoir législatif ñu jox ko parti au pouvoir bañ ko jëlee ñu majoritaire au niveau de l'Assemblée nationale tey bu ñu jëloon législative ñu jox ko opposition mooy def nañu séparation des pouvoirs mais nous on n'a pas fait la séparation des pouvoirs en donnant tous les pouvoirs au président en donnant plus de députés euh, au président ñun ñoo jël plus pouvoir législatif jox ko Macky Sall moo tax il est temps que ñu récupérer lépp luñ ko jox mu nekk maire yi il est temps que yéen ngeen bàyyi di jox seen maire yi parti au pouvoir fii ak ngeen a ngi jël seen maire yi di ko jox parti au pouvoir duñu leen liggéeyal dara lu dañ leen di sàcc prochaine municipale jël leen maire yi ngeen jox ko opposition bi. su ko defee ku ci nekk dina mën a contrôler moromam opposition bi buggee jot ci pouvoir bi danaan forcé man il faut mu liggéey ci maire pour pour sénégalais yi wóolu ma Macky Sall bu bëggee récupérer maire yi danaan forcé pour ma récupérer maire yi il faut que ma ma neexal euh, population bi su ko defee sa saxaat tout pour le bénéfice du popula de la population mais tant que ñun amuñu réflexion boobu noonu ñun ñuy topp ay ñoom bay peex ñi nga xamante ne ils sont toujours du côté du pouvoir ñu ñuy guider nañu ne jël leen lépp ngeen jox ko Macky Sall il faut arrêter de donner tous les pouvoirs à à l'État pouvoir législatif mooy député il faut le donner à l'opposition tey cumul de cumul de pouvoir yooyu noonu moo tax ba Macky Sall am doole duñu noot xaalis bu ñëw dugg ci dëkk bi moom kese mooy décider nu mu war a def ci xaalis bi parce que dangeen néewal doole opposition bi tey il faut que ngeen joxaat doole opposition ba nga xamante ne Macky Sall fu mu fu mu waxatee opposition bu ñu tapee ci table bi dañuy dellu ginnaaw li nga néewal doole bi ñu néewal doole opposition bi moo tax bi pétrole bi amee ñoom comme ils sont majorité au niveau de l'Assemblée nationale loi yëpp ñu signé ko bi Covid bi ñëwee comme dañu jël lépp jox ko Macky Sall tous les pouvoirs il décide. milliards yi ba mu ñëwee ceeb yi ba mu ñëwee xaalisu ceeb bi ba ñu jënd ceeb yu bon jox leen ko li ci des ñu def ko seen poche tey jox lépp pouvoir bi ñun on est allé même plus loin mooy non seulement dañuy jël pouvoir yi yëpp jox ko Macky Sall mais ñu ñàkk fayda ñàkk fayda boo xam te dañ jël sax suñu maire yi jox ko famille am moom mooy Mansour Faye yéen pouvoir yi ngeen jox famille boobu yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yéen a tax ba ñu fuuy ba ñu ne ñoom royaume la ñu tey il faut que vous récupérez tous ces pouvoirs là moo tax si il faut que le peuple se lève et impose qu'on ait des municipales par A ou par B il faut ngeen imposer municipal ngeen génn ci mbedd bi loolu dafa mérito ngeen marche manifester dehors maire bi jaay jën ca marché ba marché bi nga xam te ne maire bi moo ko moom ngay fay juuti te maire bi du nettoyer marché bi marché bi dafa tilim mu wacc leen ci ay condition de travail yu délabré yoo xam te ne ngeen war génn ca mbedd ba folli ndeyu maire bi xanaa gisoo leen maam toll fii France wal leen marché bi muy liggéey bi muy liggéey sécurité bi maire bee ko yore sama marchandise bu yépp a nga fa non seulement maire bi da koy surveiller mais tey bu bu marché ba lakkoon assurance ba assurance su maire bi daf may rembourser lépp lu fa nekk même sama camion daf ma koy rembourser yéen est que am ngeen loolu te pourtant da ngeen fay juuti ñun dañuy fay juuti comme yéen ñun on a un loyer qu'on dans les marchés hebdomadaires tous les quinze jours comme vous placier bi ñu ngeen ngeen fay juuti mooy nit jàll nit kiy jàll ñoo récupérer juuti bi ñu noonu la placier bi di ñëwee ci marché bi di récupérer juuti bi di euh, on l'appelle un loyer mais c'est pareil placier bu ñëwee dañ koy jox juuti quinze jours fin de mois mu ñëwaat encore quinze jours tous les quinze semaines mu mu ñëw jël si juuti bi mais xamal la moo nekk différence bi parce que fii dañuy dawal seen xel ci biir juuti boobu noonu am nañ ci assurance juuti boobu noonu mooy jël mooy fay oto mbalit mi nga xam te ne mooy ñëw nettoyer marché bi yëpp ba mu set wicc ñun bu ñu paree suñu marchandise rek la ñuy yebaat waccal leen ko ci juuti boobu noonu ñoom ñooy fay ñi di démonté stand yi di ko monté ci juuti boobu noonu ñoom ñooy fay courant bi courant lumière u marché bi ñoom ñoo koy fay tout est inclus charge yi c'est inclus là ñun am nañu xel bu normal boo xam te ne ni ko tubaab bi di defee on peut le faire du tubaab rek moo war a am marché bu set xooleen ngeen di fay juuti ñu leen di wàcc ngeen di jaay jën ci biir poto poto tu m'étonnes que le gars en 2021 mu ne dëkk bi yeewuñu sëgëm ñu ngi fay juuti te bu ñu leen tegee ci potopoto poto ñu jaay te duñu kaas kon ñii bu ñu leen indilee ba mbaam saf ñu jël parce que uude noo ñëwee rek la lay awale léegi nag yéen da ngeen am ay doom yoo xam te ne yeewu nañu gis nañ li xaw ailleurs ñëw toog yeewu ba ne dañuy yeewaale àndandox yéen lii nag ngeen war a bu même bu fekkee ne maire yi yeewuñu même bu fekkee ne maire yi xamuñu li xew ailleurs mais ñun au moins ñu wóolu seen doom yi jàng école am compétence ñu ne ah yéen boo leen fayalee seen doom yi ba ñu dem ba jàng extérieur ba ñu ñëw wala ngeen fayal seen doom yi ba ñu nekk Sénégal ba am diplôme ba tekki war leen a dimbale utiliser seen xel yi pour développer dëkk bi mais mbir yàlla ak yónnante bi wacc leen xale yi ñu dawal ngeen bàyyi ñii ñu jël retraite il est temps que ngeen wàcc ñii ñu dem tant que vous ne le faites mooy yéen a ngi gas bés bu nekk seen suuf ngeen di dee benn yéen benn xooleen fii France kenn deewatul jabet Sénégal ko woo ñu ne la jabet moo ko rey jabet moo ko rey jabet moo ko rey fii nii day def en AVC en une fraction de seconde boo woowee hôpital ñoo jël si ko fii waxuma leen sax avant ngay woo hôpital boo fekkente ne sa liggéeyukaay nga ña fa nekk yëpp na am benn nit wala ñaar nit yu ñu formé. premier secours nga xam te ne kenn bu defee AVC ñoom ñoo koy dimbale balaa pompier yi di ñëw te ñay def loolu ëpp ñu ñu benn yoon xel léegi comment ça se nag qu'on accepte des débiles mentaux toog fii di yamamaay suñu xel yi jël suñu xaalis di ko ndawtalee du ñu jëndal ay mbaam sëf ñuy noppi bu ñu bëggee tubaab yi respecté ñu ñun ñoo war a njëkk a suñu bopp ba pare tant qu'on on ne se respecte pas kenn duñu respecté ci àdduna tant que ñun ñu ngi nangu dund ci mer tant que ñu ngi nangu gis suñu politiciens ñu ñuy sàcc ñuy topp ci ginnaaw di leen voter le blanc ne va jamais nous respecter au contraire fan la ñuy toog ñu ne ñii dañu dof boo gisee ñu naan ñun dañu dof parce que ñoom dañu toll fi ñu toll ñu gisee ne ñun on ne se respecte pas moo tax lii xale yi nii foog naa bañ ko créer moom leen foog naa xam ne sax moo tax ñu créer Macky Sall moomuñu sa ndey moomuñu sa maam moomuñu say maamaati maam moomuñu Marème fay sàll moomooñu say mbokk moomuñu kenn moomuñu on est né libre avec des cerveaux donc on est libre de se dire que ne président boo xamante ne daf ñu indil ay mbaam sëf dañu koy bule ca bule njëkk ya bu baax a baax a baax bule xam ne ngeen ñi nekk ci internet bi ay rebelle lañ mais yéen a billaahi wóor na yàlla yéen ñi ñu waroon bule ci bule bu njëkkër mais bu gën a rëy bi yéen ci ngeen waroon bokk yéen lu leen nit wax ah da koy xeeb booyee maa leen nuyu bu baax a baax lu leen nit wax da koy xeeb ñi nga leen Ousmane Tounkara wax ba ngeen naan da ngeen koy signaler rebelle mais yeneen yéen da ngeen koy signaler ne terroriste mais yéen ku leen terroriser moom man man man bu ma mënoon ay nit ñu leen di terroriser sa dama koy def Parce que des gens, des anormaux comme vous, parce que je vous appelle des anormaux, en 2021, vous êtes des anormaux yéen àndu leen ak seen xel mën nga foog ni mën nii jaay carotte fii ku ma joxoon ay milliards mbaam sëf laa ci jënd jox lay milliards amoo dara loo ci jënd lu dul mbaam sëf nee naa li Ousmane Tounkara wax sax c'est vraiment minime sur ce que vous devez subir yéen lii moo gën a tuuti ci li ngeen war a subir. yéen yéen a gën a yées ci yàlla sàq am nga erreur yi ñu nangu ci Senghor parce que xamuloon internet xamuloon YouTube xamuloon Google mais yéen ngeen tollu période Google ngeen ñuy indil mbaam sëf mais yéen loo am jën yéen man man dama je comprends même pas lan moo tax bule wuñ leen woon laa il y a xale yi. ñii da leen bu war a bule nu mu gën a gaawee parce que ñii dañu insulté du point de vue international ça c'est de l'insulte man nee naa sama part bu ñu ko joxoon ay milliards mu dem jënd ci ay mbaam sëf billaahi damay xaru man man rek maay dem suicider ko et pourtant le ses enfants sont contents de dire que leur père président pour faire sa que tu fais Macky jël ay milliards di ci jënd mbaam sëf sa yaay bi doon jaay gerte sax buñ ko joxoon milliard du ci jënd mbaam sax sa papa bi nekkoon gardien sax ku ko joxoon milliard du ko jënd mbaam sax mooy ci monde bu ñu nekk nii il faut il faut vraiment s'appeler Macky sant sàll pour avoir un esprit aussi tordu pour ñu jox lay milliards nga jënd ci ay mbaam sëf et dire que ne am na ñoo xam seen doom yi dañ koo tuddee Macky Sall man yéen dama yërëm seen doom yi ku xool Macky Sall ba mu ku xool Macky Sall ba mu neex ko ne doomam Macky Sall la ko tuddee koo xam ne dañuy toog en 2021 muy jënd mbaam suuf di ko jox population bi am na ñoo xam te ne dama leen yërëm moo fekk dama leen yërëm APR man di billaahi bu ma nekkoon góor tomb ci euh, période Macky Sall juddu sama yaay sama pap tuddee ma Macky Sall bu may dee bu may bu ma bu ma fàttalee ko bu ñu ma tegalee ay jéewa Macky Sall billaahi dinaa leen fusiller mbaam sëf en 2021 te am nañu audace et vraiment c'est de l'audace vraiment avoir de l'audace jënd mbaam sëf def ci charrette foto ko ne créer un emploi vous avez de l'audace vous êtes vraiment audacieux <gasps> man lii man man personnellement aw ma audace bii na dama doon gis sax nit bu doon dawal mbaam sëf day day nëbbatu dawalkatu charrette yi Macky Sall xanaa yógoo woon ne Sénégal dawalkatu charrette yi ndeysaan bu ñu dëkk ba parce que en général sama mbokk yi ñoo doon jógee dëkk ba di dawal charrette gel sax mënuñu ko woon am ndax dawal charrette dañuy yàkkamti pare ci charrette bi pour am beneen métier pour mun a am gel yow nga ñëw en 2021 nga xam te ne gel yi dañuy sol greffage bi jar 300000 di yore portable boo xam te ne day jar ay 600000 nga leen tegal mbaam sëf Macky Sall da nga fàtte ne période bu ñu toll nii lu xew Sénégal ndax gars yi dañ koy selfie lépp lañuy ñuy selfie lépp lépp lépp lépp dañ koy selfie yow amoo dara loolu di jëndal lu dul mbaam sëf bu ñu paree selfie la ko tegal la ko fii non c'est le la après l'abruti du village xam nga ma ne Macky Sall Macky xel bi yegg na yàgg na Macky yaa ngi dawal oto bu gën a cher sur terre. yow sa oto moo gën a cher oto Macron Macron amul sax makkaa ba jëndal boppam oto boobu noonu déjà ba ngay jënd oto bi rek nee naa la ñoroo parce que mënoo am tali yi délabré comme Sénégal dem di jënd oto yu mel noonu moo tax ba ngay dem ci dëju tanoor ba oto ba dàq parce que oto boobu noonu dëkk yi ko am yëpp seen tali dafa normal yow rek laa gis tali bu am rëng-rëng rëng-rëng nga dem jënd ji oto bi gën a cher sur terre pour dawal ko fa léegi yow bi nga demee ba sa xel màcc ne yow da war a am oto bu gën a cher sur terre boo xam dafa am sécurité bu amul fenn léegi yow naka nga mu ne euh, créer emploi ak mbaam sëf te mu wër la ne yow yow est-ce ku la joxoon mbaam bi ne la léegi da ngay génn ca pale ba doxantu jeex mbaam sëf est-ce que nga dem ndax xam na yow xam ne mbaam sëf amul ah, amul sécurité mais zéro sécurité ah kon yow xam nga luy lu ci sécurité ba nga jëndalee sa bopp oto bi gën a cher bu ñu demee ba tollu à deux mille vingt et un nga xool oto fi mu gën a cher nga jënd ko sa bopp. waroon nga am màkkaaba booy créer emploi nga créer emploi bu méngoo oto ba ngay dawal mais tu es le président le plus abruti boo xam te ne jëndal boppam oto bi gën a cher sur terre di créer emploi charrette yow luñ la bëgg a wax rek Macky Sall lim ma la bëgg a wax xeet ko xam boo nekkoon sama doom billahi ñaari aller retour laa lay def ba sa cerveau bi dellu si malheureusement nekkoo sama doom dafa am dëkk boo xam te ne dañ la fa teg ñenn ñi dañ la war a respecter parce que nee nañ président de la république mais en deux mille vingt et président bu ñu jox ay milliards muy jëndi charrette charrette mbaam kooku laaj leen ma ban respect lañ ko war a jox man de vous ban respect la war a jox président boobu ñu jox lay milliards nga dem jënd ko ay charrette mbaam nee naa la xale bu nekk sixième sax sama doom bii nii bu ma ko yóbboo école dinaa poser question. waa école bi xale yi bu leen joxoon milliard pour ñu créer emploi est-ce que charrette mbaam lañ ciy jënd man je vais poser la question parce que xëy na peut-être je suis pas peut-être que je fais partie des anormaux parce que man laa ça me dépasse au fait ça me dépasse vraiment mais vraiment ci création emploi wu Macky Sall avec des milliards ça me dépasse mënuma trouver les mots au fait tellement que ça me dépasse et que je vois le peuple qui ne réagit pas da ngeen di reetaan mais ñu mais Macky mu ngi saaga boppam du point de vue international il est en train de se ridiculiser mais vraiment grave xëy na am na ñu bëri ils imaginent pas la gravité des choses mais c'est très grave fi ma dëkk nii village bi sori na Paris sori Paris boo xamante ne budget village bi demeewul noonu de parce que c'est une petite ville mais maire bi amul sax makaaba ne day arrêté oto yi oto mbalit yi remplacé ko par charrette buy ramasser mbalit parce que yabul dëkk bi ndax waa dëkk bi dañu am fulla am fayda tey il est yépp am fulla am fayda jóg xam lu ñu bëgg ci àdduna jóg xeex seen ak seen yelleef ñu xool kan moo leen di représenté sur terre man je parle pas de ces politiciens à deux balles qui veulent se caser boo leen di voté xool leen ki ngeen di votel bu baax a baax a baax a baax rawatina ñun ñu nekk ci diaspora bi on doit avoir des bons députés de la diaspora ma ñeneen ñi de ma leen de mais pas député boo xam ne day yuuxu rek te amul résultat. yéen ba leen député yi di yuuxul ci assemblée nationale ba léegi ban résultat la ñu zéro résultat ñun waa diaspora bi on a zéro résultat du ci amélioration visa yi man ba may ñëw France na visa yombe woon ak léegi ça devient de plus en plus difficile mooy député yi lan la ñuy négocier si. assemblée nationale bi Macky Sall jottali ko qu'est-ce a ba tout à l'heure député yi suñu député de la diaspora parce que gars yi dañu foog ne député rek da dem foofu rek di yuux non lan mooy rôlu député de la diaspora du pour mu dem si suuli ji ay niwa accident am na na suuli ji ay niwa qu'est-ce qu'il vous propose en fait ñan ñoo nekk ci diaspora bi am na ñoo xam te ne ñu war a ñëw regroupement familial am ñoo xam te ne fi ñëw pour liggéey am na ñoo xam te ne fi ñëw amuñu kayit am na ñoo xam te ne fi ñëw jàng si donc loolu yëpp bu ñu ñëwee suñu député de la diaspora il fait quoi dans l'histoire c'est quoi son rôle parce que ba léegi. député yi may gis yëpp ñu ne député de la diaspora on choisit pourquoi on choisit un député de la diaspora déjà nañu tànn ki nga xam te ne dafa dund ñun li ñuy dund yëpp mooy koo xam te ne am na fi cursus su étudiant mu xam naqar bi étudiant yi di am am na fi cursus su sans papier mu xam naqaru sans papier li ñuy am mu am fi cursus su liggéey mu xam. noir yi li ñuy liggéey parce que yenn saa yi am na ay noir yuy jóg ay sénégalais yuy jóg di ñaxtu parce que lañuy ñuy fay tubaab bi ak la ñuy fay sénégalais ba bokkut loolu ñu waroon am député boo xamante ne loolu yëpp da koy relayer ñun suñu dëkk yi ak dëkku tubaab yi ñu am ay accord tey bu ñu amoon député de la diaspora bu jaar yoon ku mel ni Assane Diouf kenn du ko rapatrier parce que je peux pas concevoir ku am doom États-Unis ñu di la rapatrier di la séparer sa famille ba léegi dégluwuma ji député de la diaspora buy toog di ñaxtu les véritables problèmes des gens de la diaspora diaspora du kër rek la ñu bëgg Sénégal non diaspora dañu bëgg dund fii xappi bokk ñu respecté suñuy ak suñuy yelleef dëkk bu ñu nekk bu ñu demee consulat ñu bëgg kayit ñu respecté ñu bu ñuy accueillir ñu accueillir ñu comme ay nit bu ñu bëggee suñu pièce d'identité ñu joxe délai boo xam te ne dañ ko teel jot bu ñu bëggee carte d'identité pareil suñu extrait de waroon nañ ko defar sur place soxlawu ñuy dem fële Sénégal di ko wuti mais yooyu yëpp man je vois pas un député de la diaspora kii est kii se lève pour les véritables problèmes de la diaspora ban amélioration moo am da ngay dem porte de la chapelle sans papier ya fa nekk ils sont am amuñu sax secteur psychologue boo xam te dafay nekk fii ci diaspora bi ak yit sans papier yi dalal leen dafa leen ay aide ñu mën a toog Bonne députée de la diaspora qui se dit, ben écoute, on va acheter un on ne plus avoir de sans-papiers qui dort dehors. suñu mbokk yaa ngi nelaw ci mbedd bi yow ah. ngeen xam ko ngeen bañ koo xam ñu ngi nelaw ci mbedd bi am naa ay sénégalais yi nekk ci diaspora bi di yelwaante mënuñu ñibbi c'est quoi le rôle des députés de la diaspora waxuma ngeen xaar ba élection di jot ngeen dem di leen gis ji yow ah. tous les jours pendant votre mandat parce que vous êtes payé ngeen war a dem jàkkaarloog askan bi waxuma ngeen di xaar ñu rey benn sénégalais pour ngeen jóg yuuxu def benn discours dama tooga ah. les discours on en a marre on veut des choses concrètes bu ñu nee diaspora dafa am nu muy toogee tey on veut des véritables de la diaspora ñi nga xamante ni ils répondent aux problèmes de la diaspora problème diaspora du am kër Sénégal kese kese kese fi nga nekk da nga fi war a dund fi nga nekk da nga fi war a xappi fi nga nekk da fi am ay ak ay yelleef man j'ai dormi à la préfecture pour avoir un euh, un petit titre de séjour d'étudiant am na étudiant yu bëri ñu continuer seen jàng ndax lan dangay ngay dem préfecture ñu laaj la benn kayit nga ñëw ñu laajaat la beneen kayit nga tombé fa keneen mu laajaat la beneen kayit yenn saa yi dañ lay jox titre de séjour boo xam te ne périmé na rendez-vous yi ñu lay jox si heure de tra sa heure jàng lañ lay jox rendez-vous ngay raté say cours pour dem def ji ay ay kayit euh, kayit préfecture. des étudiants qui se à quatre heures du matin pour dem wuti ji këyit préfecture ci sedd bi autorisation de travail n'en parlons même pas da dem xëy quatre heures du matin pour rang pour wuti ji autorisation de travail ana di député de la diaspora Macron buy ñëw ak accueillir ko bras ouvert di ko tàccu suñu maam yi génn di ko tàccu il est temps suñu étudiants ñu respecté leen fii au niveau de la diaspora pourquoi ils respectent pas les te pourtant tubaab bu étudiant wam yi da leen di respecté seen étudiant dara du leen manqué seen étudiant dara du perturbé seen njàng dañuy suivre seen étudiants yi jusqu'au bout ñun suñu étudiant on les suit pas jusqu'au bout on ils sont livrés à eux-mêmes léegi avec ça comment voulez-vous qu'on nous respecte avant les étudiants ils avaient des logements yoo xam ne dañ leen ko doon attribuer état sénégalais moo leen garantiroon léegi attribution am nañu doon def seen mbokk la ñuy attribuer wala seen gel wala seen xamee étudiants yi nga xam te ne fii ñëw par excellence bourse par excellence ñoo ci leen ñi taxawal ñuy jël ñoo xam te ne nekkuñu euh, amuñu bac mention très bien ñu di leen jox ay bourse par excellence parce que seen bokk la étudiants yi dañuy dem ba petit boulot yi dañuy privilégier seen jàng ñenn ñi par chance dañuy yegg jusqu'au bout te pourtant amoon nañu intelligence pour dem jusqu'au bout tey ma gisee ñoo xamante ne man ak ñoom ñoo bokkoon classe ba léegi ñu ngi jàng école su ma gisee ay pas yoo xamante ne jusqu'à l'âge de cinquante ans ñu ngi jàng école ndax bañ a dellu Sénégal te pourtant c'est des gens qui étaient venus avec des rêves ñoo xamante ne mënoon nañu mënoon nañu am euh, euh, euh, cursus bu baax mi ñàkk am état bu leen toppatoo bu leen gëstu ñoo xamante ne tey bu ñu amoon rek benn néeg bu ñu doon fanaan pukus bu ndaw bu ñu doon fanaan ñu accompagner leen ñu benn petit boulot. ñooñu tey xëy na peut-être mënoon nañu jàppale Sénégal ci lu bëri bëri bëri bëri ñaata médecin ñoo xamante ne tey waroon nañ nekk médecin Sénégal la ñu livré à eux-mêmes ba fan la ñu mujjee McDo ñaata infirmier la ñu wàcc livré à eux-mêmes ba mënuñu yeggali seen jàng McDo lañu ñu mujjee wala ci ménage wala ci Fabéré quel gâchis pendant ce temps ils sont où les députés de la diaspora boo leen demee mantelage yu la ña fa jàng bëriwuñ bu fekkee na ñoo ñu ngeen di dem di déglu maire yi maire yi ne leen kër la ñu bëgg Sénégal parce que liggéey nañu ba pare dañu war a ñibbi Sénégal notre objectif dans la diaspora c'est pas que d'avoir des maisons au Sénégal notre objectif dans la diaspora c'est de vivre d'abord bien ici ñu mën a réussir financièrement ici ba ñu mën a suñu bopp foog naa ne ku ku pour réussir fii ñu accompagner la bu baax a baax a baax soxlawoo woo état pour mu jox la kër yow yaa génne sa ñaq nga jënd sa kër mais koo leen wàcc fii livré à lui-même du taqali mukk lu mët ba mën a jëndal boppam kër fële na le Sénégal tey on envoie mille milliards par an te pourtant vous négligez la diaspora ça veut dire que yéen bu fekkonte ne diaspora bi toppatoo woon nga leen niñ leen war a toppatoo bi mille milliards peut-être deux mille milliards wala trois mille milliards la ñuy yónnee Sénégal tey boo leen xew xoolee marché yi nekk fii le marché hebdomadaires algériens yi seen maam yi assez comme combattant la ñu woon comme suñu maam yi ñoom dañoo xeex xeex ba dans les marchés hebdomadaires ils ont des quotas la dedans les algériens sont mieux considérés que les français dans les euh, marchés hebdomadaires ndax dañu am président bu leen xeexal seen ak seen yelleef am na ay temps algériens yi ñun dañ daan dem di demander autorisation de travail algériens yi dañ leen exonéré woon autorisation de travail mooy ñun fi ñuy demee di xëy fajar di dem wuti ji autorisation de travail en tant que étudiant sénégalais algérien bu am titre de séjour France mun na dem mun na dem liggéey mais ñun kan moo ñuy xeexalu fet moo tax ma neen seen costume dafa forox seen tagalu dafa forox parce que seen tagalu moo ñu amaluñ njëriñoo fet amaluñu benn njëriñ après vous allez dire que oui maam elle exagère amaluñu njëriñ bés buñ ci gisee suñu bopp seen ca seen tagalu dina rafet suñu kanam mais pour le moment seen dara ma saful parce que man dara laa gisut au pour les députés de la diaspora vous bu vous m'excusez ah ngeen baal ma nag bu fekkee ne am na ay jigéen yu ci gis seen bopp man maam gisuma ci sama bopp ci dara. gisuma ci sama bopp parce que gisuma amélioration bu étudiants yi am nombre d'étudiants yi may woone ma amuñu logement dañuy wut logement am na lu gën a yomb ci àdduna mooy dem wut registre dem dugg ci résidence universitaire yi dem manager ne leen dañu bëgg ngeen accordé ñu ay logement parce que buggatuñu doomu Sénégal yi di ñëw di jàng si fii dem problème logement ñu jox leen quota ngeen xool étudiants yi université yi ñu gën a nekk ngeen xool chaque université ñaata étudiant sénégalais lañ fa orienté ngeen dem au niveau du CROUS ngeen ne koñ bii comme ñun am nañu fii dañu bëgg ngeen accordé ñu de d'étudiants ngeen dem au niveau de euh, des agences yi nga xam te ne ils sont autour ngeen jéem a wut benn registre boo xam te ne bu ñu ñëwee consulat étudiant bu ne dama bëgg logement ngeen jox ko registre bi nekk am fuyel am na offre d'emploi ngeen dem autoriser ñi nga xam te dañuy louer ñuy ñëw di afficher seen seen seen offre d'emploi au niveau de de de du consulat su ko defee yéen bu fekkente ne état bi euh, porté na garant xale yooyu noonu accompagner leen mais quitte à ce que vous leur petit crédit tubaab bi dañuy lebal étudiant bu jàngee ba pare mu fay loolu yëpp ci accompagnement étudiant la bokk mais loolu yëpp nous on l'a pas en man sama cas genre je je je parle même plus de mon cas parce que je vais plus à l'école mais ñun lu ñu daj bëgguñu suñu rakk yi daj ko wala suñu doom yi wala suñu sët sëtaat yi daj ko te mu nekk problème boo xam te ne mën ngeen ko résoudre le plus rapidement possible mais c'est pas en ramenant des gens qui connaissent rien au niveau des consulats euh, ñu mosta a ñu amul expérience au niveau des écoles euh, ñoo xam te ne jàngewuñu fii Eh, ngeen di jël def leen député de la diaspora te xamuñu problème mu ñi jàng fii lu ñu nekk xool leen rek crous même le repas de nos étudiants distribuer des repas pour les gens qui n'ont pas de bourse ou d'aide au niveau du consulat en regardant les euh, les revenus les revenus des parents mu am benn cellule euh, psychologie psychologue buy nekk ci consul bi pour accueillir les étudiants parce que xale yenn saay da ngay ñëw fii en plein hiver tu connais tu connais personne ici tu es perdu week day jot tu n'as nulle part où aller léegi kooku noonu nga xam te dafa amoon habitude di gis ay nit tey bu ñu defoon benn bureau psychologue organisé y a plein de choses qu'on organiser pour les étudiants étudiants yu mënul dem vacances mun nañ leen defal ay vacances citoyennes Les étudiants qui sont infirmiers ici, qui n'ont pas d'argent pour, pour aller en vacances, pourquoi vous n'organisez pas des vacances étables, moi l'un des Vous nous devez remplacer les infirmiers qui sont dans les hôpitaux gratuitement. Ils vont joindre l'utile à l'agréable. Mais l'olive, pour moi, il faut que nous am gouvernement boo xam te dafay farlu ci les besoins du peuple Tu me diras, Mam Sirignan, il faudra du temps, 100 ans, peut-être oui, peut-être non. 100 ans si on reste corrompu. 100 ans si on dort. Mais je peux dire que ça peut aller très vite avec la nouvelle technologie. Ça peut aller très, très, très vite. Parce qu'affaire bi engrenage la su may ne dëkk bu mel ni France par exemple c'est très facile li mu leen di wax doolu doyul sax gàllandiku état parce que da dem xool page jaune bi fépp fi nga xamante ni am na crous nga répertorier xam ne fii fii am na crous yéen vous avez les gens qui ont leur visa xam ngeen yan école dañuy jàngee donc vous avez la liste de toutes les écoles di ngeen xam ne majoritairement ñuy jóge Sénégal ñëw jàng si ñii Lyon la ñuy dem peut-être Dakar Créteil ils sont en partenariat avec certaines écoles euh, au Sénégal boo defee cartographie boobu après. ñu am cartographie les résidences universitaires qui sont tout autour déjà loolu rek c'est un travail étudiant bu ñëw fii bëgg logement bu demee consulat dinañ ko ne ban fac nga nekk nga ne fii ñu ne la fa côté fac bi nga nekk am na lii yëpp luy lu louer ay logement étudiant tu appelles les numéros sont là et elle elle va faire son travail facilement moom mooy wooteel boppam wooteel boppam ba mu logement Mais un truc tellement facile, sans le 1000 ans ni 100 ans. C'est question d'organisation et de bonne volonté, c'est tout. Mais vous faites que vous avez fait quoi comme télé Vous faites une salle, vous faites à l'époque. Tatu Digeni les rôles. À Kunyo Djoko Khalis. Mais comment vous pouvez développer un pays avec des gens comme ça Vous pouvez pas. D'abord, poste yo comme télé déjà de un dafa ñu fa a teg Ngeen wot cee taamu sax jigéen yi. Xamul ko mané taamu jigéen yi. parce que ñun jigéen ñi du ñu dem di doxaan étudiante yu ndaw yi dafa am yoo xam te ne poste clé yoo xam te ne gouvernement bi jigéen la ko war a dénk comme ça jigéen bu ñu ñëwee du ñu doxaan étudiant yi parce que góor boo fa def étudiant bu xawee rafet nii nii nii mu xool taat yi dem doxaan ko mais nañ fa def jigéen barrière tout de suite obstacle dañ leen defal benn obstacle boo xam te ne forcé jigéen bi day liggéey moo tax yenn saa yi dafa am poste yu mi yu ñu jox yi jigéen ñi dañ ko waroon jox. mu nekk li nekk ci consulat yi loolu poste yi ñuy joxe liggéey poste yi nga xamante ne des postes clés ñun tamit jigéen mu am ñu ñu war a toogee ngeen bàyyi boo leen nekkee ci ay bureau di jënd ay cuuraay on vous paye pas pour acheter des cuuraay ngeen bàyyi boo toogee ci bureau di nekk waxtaan wala nekk seen téléphone yi vous oubliez parce que ci bureau bi on tu es payé pour téléphoner y a des points yoo xam te ne te loolu yëpp ñu régler ko yomb na caméra rek ngay def foofu. caméra rek ngay teg bu fekkee ne jigéen ba copine ba dafa ñëw di jaay cuuraay temps bi mu toog di jaay cuuraay yëpp loolu ngeen ma ko dénk man damay xool caméra bi de telle bu dee dix minutes la toog di jënd cuuraay du ma ko wax dara de damay bind dix minutes yi ko cumulé ko bu fin du mois yi nga génnee loolu yëpp ci salaire mois bu ci topp jaaykatu cuuraay bi bu ñëwatee du ko ne toog ñu waxtaan mois bu ci topp du ne jaaykatu cuuraay boo ma soxlaa xaar ma ci kër. man lu ci nekk am naa noo koy réglé ah ça vaut pas la peine de pas ça vaut pas la peine di ko convoqué ni ko nii non doo wax dara caméra bi nga naka daan caax nga di ko surveiller nit ki bu duggee ci bureau bi nga di ko surveiller di ko surveiller di ko surveiller fin mois bu jotee heure ya mu jëndoon tuuraay yëpp nga génnee ko wax won ka ne yow fay ñol woon bu koy jënd tuuraay mois ba ca topp forcé day liggéey parce que wàññi bi bu méttee dina liggéey par la force mooy dama am remède boo xamante ne ñi nekk ci fonction publique par la force dañuy liggéey c'est que nouvelle technologie bi moo fi teg loo xamante ne tey les gens vont rigoler mais ñi nga am nouvelle technologie bi dañoo mën a yar les gens qui li les partisans de moindre effort après am na ñoo xamante ne ndeysaan ci bureau bi la ñuy toog au lieu ñu ay dossier nekk ci journaux yi c'est pas grave tu n'es pas payé pour lire ton journal nga cumuler ko cumuler ko fin du mois nga génne ko ci salaire la ngay dem di saw ji sax boo duggee ci douche bi parce que am na ñoo xam ne ils sont tellement feignants ils sont capables d'aller aux toilettes et de laisser le bureau mais boo génnee ci bureau bi temps bi ngay dem saw ji normalement cinq minutes nga fa war a def li ci yokk du wax dara da ngay jël nga cumuler ko fin du mois nga wàññi salaire après les retardataires ñi nga xam ne dañoo tàmm grasse badge yi ñuy def noonu pour dugg ci biir entreprise bu badge heure bu mu badge rek boobu nga koy calculer mooy heure d'entrée bi bu amee ngénte tàmm nañu bu ñu amee ngénte teel a wàcc jigéen ñi loolu lañ gën a daam teel a wàcc pour dem ca ngénte ba d'accord heure de sortie bi ngay def rek fin du mois boo ko génnewee ci salaire bi parce que maire yi tàmm na bëgg nañ dem ngénte bi mais bëgg nañ am salaire boo ko defee benn yoon ñaar yoon ñetti yoon beneen yoon day ñëw heure danaan jub xocc moo tax quand les gens me disent que oui il faut cent ans pour réparer le problème au Sénégal dama leen ne man loolu doy ñu sax gàllankoor avec la nouvelle technologie li nga am nouvelle technologie bi mais tout va très vite après dafa am ñoo xamante ne Pape Ndeye ne maa nuyu baax baax dafa am ñoo xamante ne dañuy dañ leen jox poste mais piston mais mënuñ ci dara mooy dañu ñëw di liggéey mais xamuñu ci dara ñoo maama yem mosoo faj xamoo nga ne mën nga faj ñooñu tamit pareil. boo leen tegalee caméra nga gis ne nit ki dafay toog toute la journée te mu liggéey bañ ko jox mënu ci dara mais comme t'as rien fait t'as rien foutu à la fin du mois t'auras pas salaire mais doo ko jox salaire bu ñëpp jotee seen salaire moom jotu salaire na ñëw kaas bu ñuy kaas nga tegal ko vidéo bi tu veux que je te paye quoi je te paye rien parce que t'as pas travaillé dafa am loo xamante ne foog naa ne yéen a ko def problème mais man pour man ma maam du problème. tey dañu am lu nga xamante ne dañ koy wax caméra vidéo surveillance à distance muy enregistrer lépp à la minute heure bi ngay dugg am na sax alarme yoo xamante ne nit ki bu defee benn mouvement day sonné sa portable pour wan def na mouvement genre yooyu noonu maam dafa xam ne muy fonctionné rawatina nag ñi nga xamante ne dañuy sàcc sàcc sàcc livre sàcc bic wala ñu ñooñu caméra bi rek ngay jël. jël nga du la wax dara sàcc nga bi ba ne ba ba nekkoon ca ca bureau ba du ma la wax dara sàcc nga carnet ba nekkoon ca bureau ba du ma la wax dara PQ ba nekkoon ca bureau ba je te dis rien du tout je à la fin du mois ma xool la nga sàcc yëpp ak heure ya nga nelaw yëpp ak heure ya nga teel a wàcc bu ma ko génnewee sa salaire mois ba ci ñëw ba ca topp di nga teel a ñëw par la force droit par la force c'est que yàlla daf ñu defal benn nouvelle technologie boo xamante ne mais nouvelle technologie boobu buñ ko toppee. mais bu nee naa la Sénégal day jub xocc waxuma la danga tee day jub xocc par la force day jub maintenant c'est à nous de dire est-ce qu'on veut adopter cette nouvelle technologie ou bien on veut se faire avoir et continuer à se faire avoir ñëpp di ñu raw tey bu ñu yeneen dëkk yi rawee rek daf ñoo neex ségam Google ségam YouTube nga mën a dem. xool ni ñuy fajee nga ñëw faj man dem naa ci médecin ne ko xam laa am mu livre euh, xoola dafa dugg tapé maladie bi ci Google Google génne ko médicament bi muy faj médecin bi laa wax de mu defal ma ordonnance mooy li ma defal man sa mënoon naa ko def sauf que la seule chose aw ma agrément pour bind ordonnance léegi loolu yëpp mu am c'est très bien. parce que man je ma rappelle à l'époque BCEAO amoon nañ benn médecin boo xam ne dafa ñëwoon mu ne fii la jàngee médecine te mosul jàng médecine di prescrire nit yi ay médicament am na koo xamante ne da ko doon dem traité rein wam yi fa la jëlee dialyse ndeysaan maire bi gaañu na léegi am na sama benn tonton boo xam ne médicament bu ñu war a jël benn jour benn yoon par jour mu dem defal ko trois fois par jour au bout de trois jours lèvres yi néew ba nii. tey sax ak nouvelle technologie bi ils vont plus faire ces genres d'erreur parce que nit ki bu ñëwee ne dafa feebar bi dangay ngay dem boo demee Google nga tapé feebar bi mën na la génneel médicament bi boo nekkee médecin nga bind médicament bi nga bindal ko ordonnance bi mu dem mooy en une fraction de seconde li xew li fi ñu toll nii ci àdduna bu ñu bëggee avancer nañ avancer bu ñu bëggee nag dund ci euh, période néandertalien yi ah ñu ñuy indil ay mbaam sëf ñu dellu ci période mbaam sëf suñu moroom yi yëpp raw ñu kon sama gaay yi maa leen di nuyu di leen sant di leen gërëm ne leen wax bi métti na dëgg dëgër na mais c'est parce que rek li ko waral moo ko waral muy mbaam sëf yi nga xamante ne ça traumatise tout le monde mbaam sëf bi nga xamante ne moo feeñal sàcc yi wane ne ñi ñu gouverner c'est des plus grands voleurs de la terre yéen a ngi lijjante viol de mais foog naa ne yéen li ngeen di yàqal Sénégal. moo ëpp téeméer yoon histoire de petite viol de fausse violée li ngeen yàqal Sénégal yéen yàqal seen maam yi seen tante yi seen nijaay yi seen yaay yi lañu jotoon liggéey yëpp yëpp yëpp Macky Sall li sa yaay jaay gerte yëpp yàq nga ko ci benn fan Macky Sall li sa yëpp yàq nga ko ci benn fan Macky Sall li sa turandoo nekk maire yëpp yàq nga ko ci benn fan parce que dire que yow sa turandoo maire la mooy fa nga juddoo ji xam nañu politique jàng nañu politique mbaam saf nga ñu indil yow yàq comme lu xale yi naan sperme bu ñu yàq la de mais yow vraiment vrai gâchis nga gâchis yow personnage le plus mais Macky Sall mais Macky Sall yow li la créé yow ëmb la neuf mois rek gâchis la neuf mois enceinte nga accouché koo xam te ne en deux mille vingt et pour que mu indi mbaam sëf rek gâchis la. nga baal ma nag de avec tout le respect que je te dois je te le dis mais vraiment respectueusement son excellence je t'assure hormone yi la créé gâchis la pour suñu population mooy tu devais même pas naître nga parce que si tu n'étais pas né on n'allait pas avoir un président qui s'appelle Macky Sall jusqu'à nous ramener des ânes en 2021 mooy circuit bi yëpp yëpp moo waruloon a exister a fait je sais pas ban jour jour bi nga juddu sax moo waruloon exister ci calendrier bi yow sa bopp yaa warutoon a exister waxuma la éliminer la tu devais pas exister en fait parce que des fois je me demande y a des gens pourquoi ils existent parce que sa vie moo amul sens en fait amul sens ta vie n'a pas de sens parce que monde bi ñu toll nii ñi sen dund am sens. mooy ñi nga xamante ne saan dañuy créer yow dégg déggoo Tesla Macky Sall déggoo Tesla gars yaa ngi ci Tesla voiture électrique Macky Sall xamoo li Tesla yow tubaab yaa ngi ci oto yoo xamante ne soxlawul chauffeur yow tub non mais Macky ñu ngi waaj a créer train boo xamante ne day naaw boo day naaw mooy teer bi nga def nii tubaab yaa ngi nekk ci train yi naaw. ñoom ils sont dans d'autres monde ñoom ñu ngi ci monde supérieur Macky énergie renouvelable yooyu yëpp ñu ngi ci Macky nga baal ma de dëgg la sama jaam nga am na yu bari je te le dis gentiment li may wax ni yëpp je te le dis gentiment je te le dis dama la koy wax rek ci xol bu rafet boo xam te ne doo ñu gaañ-gaañ say mbokk mooy Macky Sall ci njekk ak teraanga ci diggante séeréer ak tukuleur bu fekkee ne tukuleur nga sax est-ce que sax tukuleur nga parce que tukuleur da daan yeew tukuleur yi dañoo intelligent est-ce que sax tukuleur nga mais ci loolu yëpp bu fekkee da nga cee raxu aussi on te considère comme un tukuleur limite ñuul nga tamit comme séeréer xaw ma nag xëy na entre deux nga nekk peut-être entre deux moo tax jeunes yi xaw a doy waar léegi sarax ma ngir yàlla ak yónnante bi Macky soo ma bëggee bokk boo ma bëggee parce que xam naa ne ba ñoom soo ma bëggee Macky Sall démissionnaire rek problème bi résoudre. tu démissionnes tout juste pour le bien de tous les Sénégalais pour le confort de tous les Sénégalais Macky Sall nga c'est tout à ton honneur nga xëy rek ne xaaral je me suis assez humilié comme ça nga démissionné Senghor bi mu ci tolloo woon ndeysaan yeggul woon mandat dafa woo Abdou ne ko kaay remplacé Macky Sall boo démissionné tey ku lay remplacer Moustapha Niass la lendemain day dee ñu organiser élection président Ousmane Sonko ñëw remplacer moom yomb na mu ñor mais yow ngir yàlla yonent bi à de Tesla Henri Richard xam na luy Tesla sax de xam na ko sax de ndëgg la xam na ko mais moom ère de Tesla Tesla moo ko sonalu ndeysaan Macky Sall ku ko tegaloon Tesla tegal ko oto boobu noonu bi mu jënd noonu. moom du jël Tesla de xamul ne Tesla du polluer de moom oto bii lay jël loolu mooy Macky Sall Macky xelam bi dafa yegg fii nii fii la yegg ndeysaan fii yeggagul fële moom bu ñu ko tegalee oto buy bu dul polluer bi lay jël forcé moom lay jël ça c'est Macky léegi Macky Sall avec tout le respect son excellence comme ni ñu la koy woowee waa APR son excellence président de mbaam des charrettes de mbaam mu lay ñaan ngir yàlla wax yonent bi laay waatu amoon na fi presque quatre-vingts ans indi lu ñu mbaam sëf indi lu ñu woon mbaam sëf de te moo la magoon téeméer yoon mag sa yaay mag sa pap indi woon xelam sax daju ko woon amuloon vision ba sëf yow nga ñëw judd après l'indépendance ma Sall boo demee ba sa xel toll ci mbaam sëf ngir yàlla ak yonent bi balaa Adji Sarr di fi génne di waat beneen sorti parce que genre coup à deux balles yooyu noonu sa ne m'étonne nga def sax coup à deux yooyu noonu ndax sa xel bi yeggut sarax ñu rek nga bind lettre bi lettre bi soxlawu muy gudd Macky Sall lettre bi quatre phrases rek la war a am quatre phrases messieurs et madame j'ai décidé de quitter le pouvoir cordialement Macky Sall soxlawu sax ngay joxe raison surtout tout quatre phrases yooyu rek ça suffit bu mu gudd bu mu gàtt loo ci yokk mu yàqu. ñu baal la xol bu sedd guy on recommence à zéro c'est pas grave parce que même bu ñu recommencer à zéro nañu avancer bonne soirée tout le monde. Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.